faj ko day jafe nit ñi amatuñu njekk amatuñu raxma amatuñu gentillesse éducation éducation sama soxna boo koy takk mm-hmm. am na yoo xam sax mm-hmm. dama ko tere woon ay dem salon yooyu comme si que xam naa mm-hmm. ne lii du diine mais après daf ko def mais man yooyu dama bàyyi bu sedd dama ko comprendre dama xam ne am na yoo xam ne sii comme si que yow yaay wax ak moom après nga koy expliquer moom mu mën a comprendre mais nekkul ne. Mhm. tey jii rek takk naa ko. tey tey rek waa kay tey mu jeex. yomb de. force ngeen am ah. pour yow nga mën a am résultat yi nga bëgg ci moom. Mhm. maanaam keneen parce que force moo warul ndax yàlla suñu borom moo ne laa iqra fi diin kenn amul droit forcer doomu aadama ci ci ci ci diine ah, ci. Ah. nit ki day choisir. yàlla bu koy mhm. tere étape par étape la la jeex naa lu bari yàlla boo koy xoola sàngara avance di ko tàng di ko tere ay étape par étape la ko jox mm-hmm. nit munoo xëy xëy bëgg lépp rek mel noonu lépp sotti étape par étape ah, ngay sotti ba keroog mm. daay nga bëgg waaw vraiment kontaan naa émission bi am na solo maa ngi guddal naa bàyyi ñeneen di dugg amul benn problème am na solo macha allah d'accord amul benn problème waaw soxna mu ne ehm, bu dee sa jëkkër dafay regrouper julli yëpp nag kooku nan ngay def mooy li may wax rek mooy gis nga ginnaaw diine ji moom yàlla forcé wul kenn ci lenn mooy yow li nga mën rek mooy waar nit ki ci xigma ci sagesse waxtaan ak moom loolu rek nga mën comme moom mu ngi julli rek déjà baax na parce que tey bu dul woon julli foofu la coow li nekk mais déjà comme nit ki mu ngi julli rek. waar ko boo gisee audio waaraate yónnee ko boo gisee audio waaraate wax ak moom yow ngay julli waxtu parce que des fois nit ki dina mel noo xamante ni xëy na yow le fait que ngay respecté julli waxtu le fait que aussi ngay respecté euh, say julli mën na dem ba changer comme mën na bañ a changer parce que nit tamit en moment li may wax naan boo xasee ba dugg ci nit gis ci moom yenn comportement yi ci diineem mooy imaan bu faible mooy nit koo xamante ni noonu la tàmm dundee diineem mënoo lu dul waxtaan ak moom maa bu ñu demee ba comprendre ñu ñun amuñu capacité changer kenn. maanaam dafa am loo xam ne yàlla joxuñu ñu ko maanaam yàlla joxuñu ñu capacité pour ñu jël changer kii changer kii changer kii xuloo bay bëri rek ak coow li mais kenn amul capacité changer ku dul sa bopp te léeg ñun changer suñu bopp sa daf ñuy të ñaata nit ngay gis ni tey mënuñu changer seen bopp ñaata nit ngay gis tey ñu bëgg a changer ay at maa ngi ni def développement personnel di accompagner soxna yi depuis des années da ngay gis koo xam ne yaa ngi nekk ak moom depuis des années di ko accompagner mais malheureusement da ngay gis nit ki pour mu def benn étape bu ndaw c'est très difficile wala su ko defee quelque part mu delluwaat ginnaaw mais est que nit ki da ko naan tey nga changé wala tey nga dee déedéet mooy léeg-léeg accepte doomu aadama yi seen nature seen différence mais tey dara gënul métti tey comme ni ma ko xëyee nit ki ñëw sëy si kër nga ni non par force dafa war a mel nii dafa war a changé dafa war a tolérance la ñu war a am compréhension accepter nit ñi comme ni ñu accepter suñu bopp mais malheureusement nit su accepté wul boppam. du accepter ñeneen ñi parce que am na yu bëri yoo xam ne mu ngi nekk ci yow nga koy gis mu nekk reflet nga koy gis ci ñeneen ñi te mënoo ko accepter parce que dafa nekk ci yow ndax soo demoon ba xeex ko ci sa bopp ba accepter ko sa bopp ba nangul ko sa bopp rek pour nga accepter ko ci ñeneen ñi dafay yomb ndax tolérance ngay am léegi nag soo amul tolérance ci sa propre personne kan ngay yërëm kan ngay yërëm. tolérance boobu nag dafa am ay niveau léegi ne dama naa dafa am loo xamante ni moom la ñuy toléré parce que ci diine euh, parce que bokkul ci diine lépp loo xam ne tey du diine mën nga ko toléré lu normal mais loo xam tey ci diine ji la bokk par exemple nit kuy bokkaale nit kuy naan sàngara nit kuy tox lu bon le koo xamante ni du julli yooyu moom yow yaay xool il faut que nga wax ak nit ki tegal ko ultimatum soit mu changé soit nga dem sa yoon parce que yàlla digal la nga sëy koo xam du julli ah yàlla dafay naan sàngara loo fay def. waxtaan waxtaanal ak moom su amee volonté faju am volonté changé nga accompagner ko mu changé nga dimbali ko ci processus boobu su amul volonté nag da ko fanaan ñukk dem seeti leneen parce que nag nit ki comme ni ñu ko waxee yàlla suñu lépp loo xamante ni tey da jàpp nit nga jàpp ko ci lu neex yàlla boo koy bàyyi nga bàyyi ko ci lu naqari yàlla léegi nit ki soo demee ba di ko bàyyi parce que xëy na julliwul parce que woorul parce que dafay naan te sermoné ko parce que day tox wax nga wax ba sonn nit ki nanguwul bàyyi loolu su boobaa nag am nga droit génne ci loolu ba mu set te kenn doo ci waaw ah, parce que lu nekk dafa am euh, limite lu nekk bi dafa am waaw euh, ah, dafa am euh, lu lu ñuy nangu ak lu ñu dul nangu ndax nit ki tamit doo tolérant rek nga ni lépp laay nangu déedéet y a des choses acceptables y a des choses yu acceptable waaw léeg aussi ñu naan muñ muñ muñ muñ mais muñ lan lan la ñu war a muñ ñu naan muñ mais muñ loo xam ne tout le temps ñu ngi ci naqar dañu war a forcer dañu war a léegi dafa loo xam ne soxlawul muñ parce que dafa naturel ma nekk sama ay doom ñu naan waaw boo nekkee xale da nga war a muñ lu may même dans leur pire bêtise je les aime du tere damay jéem a nekk ak ñoom réformer leen waxtaan ak ñoom sans pour autant ma weñ seen loxo wala man ne leen tey ngeen baax wala tey ngeen dee waaw ah, parce que baax nekkul ci sama loxo lii yéen yàlla suñu borom xam ne yéen sa salam baax nekkul sa loxo yow dañ la ne wooteel rek lañ la sant waaw après kii baax ak ki dul baax kii gëm ak ki dul gëm loolu yàlla joxu la ko waaw ah, loolu suñ ko comprendre ne avancé ay Aïcha ñu ngi lay dalal. man lu ma la am na lu ma la bëggoon a te de léegi ñu ngi wax mbiri mhm. julli xam nga dara la man dama li euh, depuis ma seeyee nag dama saagane suma juli bu baax a baax a baax a baax dama le mhm. saagan tey ma def léegi léegi man te suma julli dama lay gis ne parce que man euh, lu bari daf ma daal bu ma nekkee xale xam nga waaye mhm. xam nga euh, yaroo ma si kër yi kër bu nga xam ne mel ni tey suma pa dafa feebaroon man suma pa dafa amoon feebari boppa suma yaay dafa mm-hmm. amoon njaboot trop léegi dafa mel ni dama doon yaroo fii tey suma demee suma këri baajen suma këri maam suma lii duna bu métti daal mm-hmm. léegi dafa am lu bari man maa lay maa protéger suma boppa di ma nekkee xale pour suma boppa mm-hmm. léegi pour ma mun a am góor daal bu ma xala mun a comprendre daf dee xala jafe ana suma jëkkër bu ma seeloon Euh, dégg dégg am na. Mm-hmm. am na comprendre woon ci man trop trop trop trop trop. kooku lu tax euh, ngeen ah. question bi. Euh, dafa dafa <laughs> ni tey góor xam nga dem mm-hmm. dafa nekk dafa dem am keneen doom dafa bu ñu woon dafa dem liy keneen daal ama kooku doom man nag affaire bi métti mm, waaw loolu moo tax. waaye tey sama xarit digga digga la waaw suma xarit dëgga euh, waaye léegi ginnaaw dem nga ba mën a xaritoog moom kay kon kay mënoon ngaa muñ loolu rek parce que man dama ki bu ñu demee ba tas ah, ah, a xaritoo te dañoo tas ba pare pour man loolu mënoon yoroon loolu moo génnoon si ñun ñaari parce que moom préwut pour toog pour nekk daal ak lii daal xam nga ko mën a yem maa comprendre waaye dafa nekk rek mënutoon a toog ak bugg na tukki lool ba pare tamit dama lay ragal feebar ak yooyu loolu moo tax loolu moo tax daal ba pare danoon danoon bari ay gel trop trop trop trop trop trop. Ah, ok léegi man leen laay bëgg a laaj jigéen ñi balaa bu dee indiscret wul après ñu avancé mooy. Mm. Euh, le fait que tey euh, sa éducation yow staableul da nga doon jaabante ci kër ak kër. waaw mm. ah, tey dem nga ba màgg nga am problème mu nekk ak góor euh, parce que sa éducation moo staableul loolu normal la parce que nit ki soo amee éducation boo xam ne staableul sa jukko du stable te it da ngay bëri lu la naqari dangay am colère boo xam ne dafay nekk ci yow ba nga xam ne lu tuuti lu leen def doo ko mën a muñal te colère yooyu dajaloo ci yow tant que fajoo ko nga faj say blessure parce que blessure yooyu danga nga ko yor depuis nga nekk xale. Mm-hmm. day tax yow relation boo nekk. tôt ou tard mm-hmm. da nga ciy gis ay naqar ay difficultés yoo xam ne mën na nekk ci nit ki mais léeg-léeg aussi dafay nekk ci yow. Mm-hmm. ndax tey euh, damay wax ni tey su demee ba nga xam ne nit ki sëyu leen mais mën ngeen a xaritoo. dama naan man pour man gëw ma loolu gëw ma nit ki dañoo sëyoon tas nañ mën nañu xaritoo parce que ginnaaw capable ngeen xaritoo rek lépp lu xewoon ci sëy bi war nga ko mën a muñ même bu dee day wër di ëmbal ngay ngay uuf doom yi rek parce que su demee ba ñu mën a xaritoo après le mariage ah non non nekkul xaritoo boobu xam naa ne xaritoo bu ma wax du nekk xaritoo boo teg nii de. mais ni xaritoo bi demalante déedéet. ah d'accord xamante euh, tey bu so bu ma soxlee tey mu yóbbul ma bagage Gambie ma ne ko jëlal yóbbul ma. bagage waaw mooy am ngeen relation yu normal daal. d'accord doom mais ni tey ma ne ko doo. sama sama doom bi mag la léegi moom foofu man sama doom bi mag la ah, léegi. d'accord waaw dama teel a am doom nag dama. teel a kon loolu relation bu normal la. non aha du xaritoo d'accord waaw loolu laa comprendre lu. waaw <laughs> léegi ful ne. pour ne eh, pour ne yaroo naa kër yaroo naa jàng naa daara xam naa islam musuma xam mm-hmm. affaire yi ñun daal xamuñ affaire yi ay murit tijaan xaw ma yooyu. xam nga loolu moom Sénégal la la du ma ne fa la xew mais Afrique bi moom bari na Sénégal waaw ah, tey man mii sama côté yaay Mauritanie lañ nekk te ñun xamuñu ay tariixa ah, waaw mais Sénégal nag loolu la xam waaw ah, loolu moo fa bëri waaw léegi nag euh, mm-hmm. lu ma bëggoon léegi luy wax bi moo nekk xam nga woo hmm. liyoon naa éegoon naa fii ba expliqué la dara si suma biir suma biir tey waaw loolu nag waaw loolu daf kum nekk ni dama munatuma daal dama dama soona bugatuma hmm. lu nekk affaire bi moo nekk lu bari dama ko lay xalaat parce que man suma jëkkër du euh, moom du julli daal xam nga loolu la gom loolu gom. am nga ci ay doom. benn doom. léegi yow loolu gëm-gëm la lu mu gëm ni moom du julli wala du julli parce que dafa tàyyeel. déedéet moom loolu gom-gomam la moom Baye Fall la. moom mu ne ngay dugg moom xamoon nga ko. parce que man xaw ma woon bi di tarixa xaw ma woon loolu. Hmm. xaw ma ko daal. xaw ma affaire bi ci duggee jéemoo ci jéem naa si wax naa si waaye daf ma dee. Mm-hmm. mel ni nit ki mu ne la man bis bu ma julee suuf bi daay yëngatu ak yooyu xam nga. Mm-hmm. yooyu waaw léegi tam te dama am doom te dafa am yu bari bari bari bari bari bari tey sama doom ji sama beneen doom bu ma am fii aaju ba mu nekk daf te dem julli ji. Mm-hmm. léegi damaa gis du ma ko léegi-léegi su ko du ma ko lee bëgg a forcer torop kaa ñu julli kaa ñu julli mm-hmm. parce que dafa am saagante bu ma defoon suma diggante laay di wax yaay fa laa nit ak yooyu yu bari waaye dafa nekk tamit. parce que yow da ko toppoon ci gëm-gëmam daal. Euh, déedéet toppuma ko ça pour sa dama ko doon ne góoma lu bari daal. waaye dafa am mais yow yaa ngi doon respecté sa julli. waa dinaa julli tey ma parce que man julli. dafa am julli lu mu ma dee def man tey bu maa mm-hmm. man soo ma gisee su jàppee di julli chaque jour jour dafa am benn leeraay mm-hmm. ba pare lu ma dama lay gënta te gënta yu ma lay gënta yi daf dama ko lee mun a gis lu bari suma gàllankoor yu ma mun a dal yu bari dama ko lay gis mais ni tey ma mun a gën damaa ah, gën bien julli moom loolu du but du loolu bu ñu dugg foofu soxna si parce que julli moom jotagu dara ak li ngay gént waa julli lu normal la rek loo xam ni ma ni tey suma julli wallahi dafa am lu lee nekk man benn leeraange bu nga xam ne daal ba pere benn dal bu nga xam ne dam ko lay am tamit ba pere daf ma dee gën a julli waaw dafa am lu bari lu suñu ruux suñu ruux dafa soxla julli waaw mooy ñun ni ñuy lekkee di ko naanee suñu biir di fees ruux bi ñu yàlla sàqal dafa soxla di lekk di naan te ruux boobu lan moo koy dundal mooy jàpp julli woor mhm. loolu mooy dundal ruux ak zikkër yi mooy euh, li nga xamante ni mooy tasbix yi zikkër yi ngay jàng fàttaliku yàlla tudd yàlla julli nag su fekkente ni jaam bi daf ko bàyyi dalay jegeloo bàkkaar sa si di ko ci def bàkkaar ngay dëkk doo sa xol mm-hmm. du jege yàlla mm-hmm. bàkkaar yi aussi soo koy def du garaaw ci yow du am benn garaawite parce que julli mm-hmm. mooy teg barrière entre ak bàkkaar yi boo dee julli tamit fu ñu la fekk sa xol day tàng sa xol day naqari dangay nerveux ba pare mm. problème daf lay yàpp doo jóge ci problème ak lëndëm lëndëm mm. boo dul julli doo jóge tamit ci tout le temps yaa ngi ci ay tolof tolof bu jeex beneen ñëw mm-hmm. te sa dund gi da ngay gis ni carrément dafa jaxasoo te yàlla suñu boom daf ko wax nee na képp ku sore yàlla yàlla nee na sa dund jaxasoo sa dund lëj waaw mm-hmm. mm-hmm. ah, léegi nag nit su demee bay julli day gis ni xelam dafa dal parce que boo dul julli sa xel du dal julli lu mu lay gën a jox mooy xel bu dal Mm-hmm. xol bu dal léegi na nit soo demee ba sori yàlla sa xel dootul dal fiñ la fekk mm-hmm. yaa ngi angoissé yaa ngi anxieux sa xol a ngi tàng yaa ngi jaaxle waaw mm-hmm. ah, kon loolu moom mooy li nga léegi mel ni tey boo nekkee tey nga nekk um, nga nekk si biir sëy eh, kontaanu eh, gom-gom yi ute na lool parce que sëy bi yàlla tabaxu ko sëy bu yàlla tabaxul doo mën a kontaan jàmm doo ko am danga koy dégg rek. ndax mm. yàlla suñu borom daf la sant yow jigéen nga sëy ak góor bu ragal yàlla. te mm. góor gu dul julli ragalul yàlla te du jullit. julli mooy pilier ci lislaam mooy première base bu weesoo tawxiid bi nga nee ashhadu anna la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulillah nga gëm yàlla bokkaale ko ak sëriñ. bokkaale woo ko ak mbindeef bokkaale woo ko ak jinne doone yàlla ak doone diw na ma may doone sama sëriñ na ma jox soo gëmee yàlla ba pare bu set wecc loolu la ñuy wax gëm yàlla am tawxiid gu set boo paree julli mooy li ci tegu mooy li ci jiitu léegi nag su fekkente ne yow da nga ne da ngay te doo julli mais kooku nga sëyal kenn mënu ko considérer comme julli sëy boobu yàlla newu ca kon bu ñu wax sëy te yàlla tax mooy sëy ki topp yàlla mais sëy koo xam day teggi waxu yàlla sànni ko fële kooku sëy eh, wax dëgg yàlla sëy boobu du la jëmale ci yàlla ci problème ngay dëkk. léegi nag su fekkonte ne ah nit ki dafa sàggan dafa tàyyel waaye kooku gëm-gëmam la kooku lislaam sant la nga sëy ak moom. ndax nekkal li nga xam ne mel nga sëy ak tubaab benn la. waaw léegi dafa mel ni parce que euh, man am naa sama cousine bu sëy ak tubaab waaye dafa dafa jullite torop dafa jullite torop. ko jullit tubaab bi dafa tuub jullit la dafa tuub jullit la kenn waxul tubaab ci kenn waxul tubaab parce que tubaab mais dañu wax tubaab ci gëm-gëm. ndax bu ñu wax tubaab la fait que mu nekkul jullit moo tax ñu wax tubaab bu nekkee jullit moom gi intéressé wuñ ci mais le fait nit ki am gëm-gëm gëm yàlla suñ koy wax mooy nit ki day gëm pilier wu lislaam cinq piliers yi mu gëm ko julli woor joxe dem màkka joxe asaka euh, loolu dafa nekk pilier yi nga xamante ni euh, am tawxiit dafa nekk pilier yi nga xam ne tey boo ci weddee benn doo jullit nit ki soo gëmee ni tey man mën naa nekk jullit waaye damay weddi aji màkka kooku doo jullit soo gëmee ni mën naa gëm ni jullit laa te duma woor kooku doo jullit soo gëmee ni jullit laa te duma jullit doo soo gëmee ni jullit laa te duma génnee zakat doo jullit jullit mooy nga jël cinq piliers nga gëm leen waaw parce que mm-hmm, euh, yuux yi dafa fort euh, su fekkente ni daal euh, nit ki sëy danga koy teg ci jaamu yàlla mooy sëy bi nga xamante ni xam nga ni yàlla moo ko tax a jóg waa su fekkee fekkente nag yàlla amu ca moom yaa ngi toog waaye yàlla taxul waaw du dafay xaw a doy waa trop trop trop waaw sëy boobu moom kenn amalu ko saafara. Um, soxna si kii nga micro bi waa. bëggoon moo nekk incha allahu rabbi dinaa la. Mhm. parce que fu mu nekk nii um, euh, dama bëggoon dama bëggoon dem. Euh, parce que bu natu ah, mel ni tey jigéen su ñëwee ba bugatut sëy ak nit kum mhm. seyal nga ñëw be nga mel ni da nga dugg si dugg nga ba pere lu bari nga jot koo mhm. xam parce que dinaa la woo dina dinaa la ni mhm. pour ñu am appointment man ak yow ñu gën a wax parce que lu bari war naa koo wax ak yow waaye man fu mu nekk nii pare tuma pour toog parce que dama am stressé trop ba pare suma xol bi daf tee metti te guwaat tiir naa Euh, dundatuma lii daal mhm. dundatuma munuma dundalul li lii na tey bu ma mhm. ma pour toogati daal euh, dama bugg a dem léegi su ma demee bu mhm. dem incha allahu rabbi dama la bugg a ñu dama la woo dama bugg a ah, dama bugg a ñu am euh, nu mu tudd dama bugg a bokk seen waaw Euh, incha allah pour ñu gën a wax waaye xam na na tey jigéen bu bugutee tamit mun naa mun naa mun naa bañ a toog bu bugutee. ah waaw déet fi mu nekk nii yow sëy bii moom farata la sax nga tas ndax sëy boo xam ni jigéen bi bi nga xam ni góor bi ngay sëyal du julli du woor kooku farata la nga tas lislaam sant la ko maa dafa sëy yoo xam ni charia bu fi nekkoon da koy tas hmm. parce que du sëy boo xam ni da ko war a sëy Mm. tey tey jigéen booy sëy góor ba góor bi xëy xëy weddi weddi julli maanaam ne man dootuma julli te parce que man maa décidé duma julli oh, est-ce que xam nga ku dul julli ci lislaam euh, après ikamatul xijja mooy bu ñu la tegee ci kanamu borom xam-xam ne la mm. tuubal nga dellu ci yàlla nga commencé julli nga ni tuubuma te julliwuma dañ la war a rey loolu mooy sa àtt ci lislaam man daal wax eh, na wax parce julli léegi nag ku weddi julli moom loolooy sa àtte mooy sëy boobu moom hmm. génn ca farata la nekkul choix ki mu nekk nii moom farata la ñun suñ waake ñun dañ dee julli daal waaye man moom waxtaan naa famille bi ñoom daal ñun léegi du doo ci mun lu bari daal nga ci dem ba xam nga ni carrément lii munul dem déedéet man xam nga du nekkoon xaw ma affaire xam nga xaw ma loolu laa wax man ni xamoo woon yàlla jégal na la léegi boo dem nga ba yow xam nga ni lii du yoon waruma mhm. des ci sëy boo xamante ni yow sa jëm bopp wax nga ko nee nga bu tayee nga julli bu subaa doo julli kon bu yàggee léegi nga jël julli bi sànni ko fële gis nga àndandoo ki ngay mhm. fanaanal moo ci jiitu mhm. te yonent bi sallallahu alayhi dafa ne booy ànd dangay ànd ak koo xamante ni daf lay dimbali ci sa diine daf lay jëmale ci sa boroom looloo tax tey yonent bi sallallahu ne Eh, jullit bu jigéen bi booy tànn jëkkër tànnal ku am diine nit ku dul julli nag amul diine ku am diine mooy kii julli di woor ku xam ne bu weeru koo jotee danaan du woor kooku amul diine koo xamante ne su julli jotee du julli kooku amul diine kon nit ki mënuñu ne am na diine te fekk na du julli du woor mm-hmm. waaw kon loolu suñ ko xamee kon war nañu bàyyi xel que ni ngay tànnee sa jëkkër wala ni ngay tànnee sa jabar day mm-hmm. dépendre ci li mu relation bi mu am ak yàlla ndax tey mm-hmm. jigéen bi nga xamante ne dana naan naa yàlla te du julli wala góor bi xam gëm naa yàlla te du julli kooku loo koy tànnee ci lan nga koy tànnee lan tànnoo ko ci hmm. diine de lan nga ko tànnee xëy na danga koo nopp mu nopp la waaye nag déedéet déedéet déedéet du affaire loolu dama xamutoon xaw ma xaw ma lii xaw ma affaire yi ah, waaw mooy li waaye man nit ki mën nga koo nopp tey hmm. ñu bëri dañu tànn nit parce que dañ ko nopp dama ko bëgg hmm. moo tax ma tànn ko mais ñu jukko bi xoolu xooluñu diine bi te loolu njuumte la goo xam ni nit ñi dañ ko daf leen di daal léegi nag nit boo juumee da ngay tuub dellu ci yàlla ñaan yàlla mu dooleel la ñaan yàlla mu taxawu la nga génn ci jàmm ak salaam te boobaa yàlla suñu borom dina la dimbali nga tuub nag. Mm-hmm. nga góor góorlu respecté say julli. nga ñaan mm-hmm. yàlla mu wéral la ndax goitre bii la dal. nattu la mm-hmm. yàlla moo la ko teg ñaanal yàlla mu dimbali la. teggeel la te yàlla mën na la ko teggeel mu wér ci jàmm ak yàlla rek wóolul yàlla suñu borom nga xam ni décision bi nga jël mooy bi gën mooy décision bi gën ci décision yi. waaw nga ngay julli yàlla yàlla suñu borom. tegee ko yow moom dineen dineen di dama bëgg nga kooje ma bu baax a baax a baax moom soxla dama la soxla torop. nga jàppale incha dinaa dem si link bi su ma demee fu maa dem nga xam ne dinaa su ma peree rek dineen dineen mun a di. di nga ma mën a jàppale ci lu bari tam incha allahu rabbi jërëjëf jërëjëf jërëjëf man laa sant yàlla yombalal la yàlla wéral la jërëjëf waay jërëjëf waay def pour boppam mooy tey góor bu ragal yàlla nekkul ni dafay fekk boppam bañ a njaaloo pour yow waaye pour boppam ndax moom dafa bëgg a dugg na moo tax moom du njaaloo bu gisee ku mu bëgg mu takk la mais góor bi ragalul yàlla wala jigéen bi ragalul yàlla ko kay njaaloo ak naan ci ndox mi la yemale ndax bu ñuy wax ragal yàlla mooy ragal yàlla daf lay euh, dafay teg barrière entre yow ak jëf yu ñaaw yi dangay daw bàkkaar dangay moytu dugg ci musiba yoo xamante ni tey yàlla suñu borom dala ciy mere waaw ndax ah. bàkkaar bu nekk dafa may conséquence waaw ah, hmm. moo tax tey nga gis euh, góor dina liggéey am xaalis lool waaye du barkelle ci problème lay dëkk ci torof torof lay dëkk ndax njaaloo euh, problème yi mu mën a indi dafa bëri problème spirituel yi mooy da ngay gis nit ki am ay problème hmm. ndax tey góor mënul di njaaloo ba pare sëyam di régler mënul nekk même sa jabar bu yëgul ni yaa ngi njaaloo sa sëy du régler foo hmm. tool da nga nekk ci problème bu guddeeg bëccëg subaak ngoon waaw ah, ndax njaa dafa am loo xam ne nit ki da koy jëf jëf la nii ci kaw mais am loo xam ni spirituellement doo ko gis te yàlla suñu borom mu la ciy mbugal waaw. Ah. moo tax nag euh, toll nañ ci jamono bi nga xam ne daal nit ñi ñu ci bëri gëmuñu yàlla ragaluñu yàlla ñenn dañ koy mbubboo ndax nit ki ragal yàlla ci ay jëfam lay feeñ boo jëflanteeg moom day feeñ ci jëfam feeñ ci ay waxam waaye nit ñi moom léegi wax mën nañ ko mën nañu wax waaye bu jëf jotee ku nekk mere sa bopp malheureusement. moo tax nag yàlla ñu yàlla yërëm te jéggal ñu. léegi boo boo jigéen ñi léegi bu ñu xam nga say chance la nit nit moom mun nga ko gis nii. chance ak sabab la nga yaakaar kii euh, jullit la kii ku yërëm jigéen la ki nga dugg nga dugg. ba pare kenn du yaakaar bi ba pare. kenn du yaakaar debbo fekke ah comment debbo. Mhm. debbo. waaw gis nga sëy dañuy wax sëy chance la waaye dama naan sëy du chance sëy dañ koy tànn. gis nga kii ragal yàlla yow nan ngay xamee ku gëm yàlla te yow gëmoo yàlla ragaloo yàlla xam nga man pour ma xam ki ji góor bi gëm yàlla fokk man ma am niveau bu toll ci sama diine fokk ma am base ci sama diine fokk ma nekk koo xam ni yar nañ ma ci diine ma mën a tànn ko am diine tey suñ ma yarul ci diine nan lay tànn ko am diine te ñun ñu ci bari julli këpp këppal nga cay xam boo sujjóotee xamoo looy wax boo rukkee xamoo looy wax booy sàbbat xamoo looy wax lu muy tekki bu ñu hmm. la laajee sax les cinq piliers de la fois xamoo ko la mooy arkaanul iman xamoo ko lan mooy li lay dugal ci lislaam sax am na ñoo xam ne xamuñu ko. waay xam nga loolu problème la parce que nit ki mënoo nekk jullit li gën a basique ci lislaam xamoo ko nga ni da ngay ko am diine nooy tànn ko am diine soo xamul luy diine. Hmm, en tout cas diine du lu ñuy wax. diine mm-hmm. lu ñuy lu ñuy jabatu diine lu ñuy dund la nit ki da koy dund par la pratique quotidienne la mun nga ko jàng à tout moment mun nga ko tey man munoo ma gis nii ma muuru rek nga ni Fatima Zahra am na diine te fréquenté woo ma pour nga xam ne am naa diine foog nga ñëw sama kër observé ma xool ma mm. ndax tey boo ñëwee sama kër gis ma bu waxtu julli jotee du julli mm. gisoo ma may jàng alxuraan su ma waxee saaga mm. su ma tourné jëw su ma ah. waxee un deux trois dugal ci lu ci bopp mais kooku na nan ngay mën a gisee sama diine bu fekkente ni man dund ko gëw ko façade la ci kaw damay solo apparence. Ah. loolu du diine dañ koy gëm dañ koy dund tey góor bi la ne dafa am diine góor boobu buy waxtaan ci biir waxtaanam da ngay mën a seer na mhm. kii bu dee am na parce que ci kàddu yu muy utiliser tey boo ko kes ay question ci diine dalay mën a tontu. dafa mhm. am loo xam ne base la. Ah. dafa am loo xam ne mooy ndax mooy li wax tout le temps nit ki mënoo tànn loo xamul moo tax jigéen ñi mënuñu tànn parce que xamuñu seen diine jigéen ñi ba dañ naan dama bëgg góor bu am diine uniquement pour góor bu a njaaloo waaye kanaan dama bëgg góor bu am diine boo moytul moom muuruwul ko mu ngi ci musique bi mu ngi ci blow bi après ngay dëgg bëgg am diine te yow amoo diine dañu waxante dëgg tamit yàlla tamit li nga mérité la may góor ñi tamit dañuy am diine dañu xam xam nga diine bi ñoom ñëpp ba am ko dangay <laughs> posé ñoom ñëpp a yab parce que tey. di nga gis góor boo xam ne danaan dama bëgg jigéen bu am diine te yow. jigéen mm. ba nga takk nee nga yow nee nga da nga ko am diine jigéen ba ngay takk du matal waxtu juróomam boo moytuwul alxuraan sa jàng ko boo moytuwul du du sax muuru boo moytuwul lu yàlla xam doy na après nga da nga takk ko am diine mais da nga nax sa bopp kan ngay nax. sa bopp rek ngay nax. nit ki mënoo am loo xamul. parce que dafa am loo xam ne nag ci àddina mënuñu jël foo nii rek non il faut que nag ñu delluwaat ci base bi xam ne tey dafa am loo xam ne comportement la diine dañ koy dund dañ koy vivre discipline la voilà nekkul lu ñuy wax nii rek diine diine diine mais lan mooy diine à la base tey soxna si fi dugg léegi nee na moom jëkkëram am na diine mais bàyyi faal la loolu xeetu diine la man ban diine laa bëgg a dund <laughs> kii am na diine mais ci tarixa bi la bokk kii am na diine mais ci tarixa bi la bokk kii am na diine mais nii na lii mais man ban diine laa gëm man léegi man selon diinee bi may dund man l'islam bi may dund góor bi ma bëgg diine gi may dund na méngoo ak sama bés bu ko defee conflit du am problème du am. bu dul ah. loolu bu doomi juddoo ku ci ne di xëcc jëmale fii ki xëcc jëmale fii. kon mbir mi wax ji dafa bëri lool mais nag wax ji il faut que nag ñu am fuñ ko teg nag mënuñu continuer di wax ne comme ça parce que dama naan tout le temps nit ki buy tànn na xam li muy tànn ki ngay ki ngay correspondre ki il faut bi ñu def ko comme boo ñëwee nga indi sa CV ma lii ah, mais CV la kay mais est xam nga tey suñuy wax ni ndax tey suñuy wax mu xaabala nga xam ni ay tuuti correspondance bu ñuy wax mu xaabala bu ñuy wax mu xaabale ci lislaam uh-huh. par exemple agence matrimoniale yi ni ñuy def nga xam ne tey dañ lay laaj par exemple loo bëgg ci jigéen excusez-moi loo bëgg ci jigéen physiquement nga décrire yonte bi sallam ne ne jigéen boo ko gisee uh-huh. li nga war a njëkk a xool mooy xoolal physiquement est-ce que neex na la ba pare waxul xoolal diine ji ba pare xoolal physiquement ba pare nga soog a dem uh-huh. xooli diine ji parce que soo xoolee diine ji te physiquement neexu la boo ko takkee di mooy yàlla Mhm. bu la bu dee neex na la physiquement bu jaree sax nga koy romb rombul buntu këram di ko xool di taxaw ci roq di ko yër muy dox di dem di ñëw nga di ko observer di ko observer ba gis ki ay habitude tam ni muy doxee ni muy jaabante lépp neex na la nga lijjanti diine ji. diine mm. nag bu ñu koy lijjanti dañuy xam ndaw si kii fu mu jàngee lax jàng na. ban conception la am ci diine ban compréhension la am ci diine parce que bëri na ñoo xam seen compréhension ci diine dafa erroné. li ñu gëm ci oh. diine dafa da nga koy digg ay ree dalay jàpp parce que amul benn amul amul amul euh, naka laa ko mën a expliquer amul cëslaay amul fondement. waaw li nga wax fii léegi rek ñu bari boo laajee cinq piliers de l'islam duñ la mun a wax. waxuma la cinq piliers de l'islam sax yomb na ndax loolu xale am trois ans xam nañ ko ay cinq piliers de la foi ndax ñu bari foi amuñu ko amuñu tawxiid. Mm, mm. amuñu tawxiid. tey conférence bi da nga dégg man bi lan mooy tawxiid. li gën a yëbale rek mhm. sénégalais bu naan lan mooy tawxiid léegi ku xamul lan mooy tawxiid kooku nan lay amee diine nit mënul am diine bu amul tawxiid mm. ndax ma léegi lu tax affaire sëy yi compliqué bu njëkk melul woon ni lu tax léegi mu compliqué comme ça dina com dina compliqué parce que bu njëkk internet amul woon tele amul woon wala bu amee bëriwul woon Facebook amul TikTok amul nit ñi amoon nañu temps wu toog jàng seen diine nit ñi amoon nañu temps wu jàng alxuraan ba pare àddina ubbeekul woon ku nekk la nga gis fa nga yam loolu rek nga gis gisoo leneen nekk ci ginnaaw feneen waaw léegi nag vu que euh, TikTok dafa ubbeeku àddina dafa ubbeeku consommation dafa bëri nit ñi di caxat caxatee bànneexu àddina yi doylu amul. Euh, nit ñi discipliné wuñu seen bopp donc c'est normal àddina bi nekk en débauche parce que nit ñi bu ñu toppul à la base leen yàlla sant malheureusement du ñu nekk ay nit yoo xamante ni dañuy euh, dañuy dañuy mën a régler parce que nit pour nga discipliner il faut que nga jàng yar sa ruux waaw. tarbiyatul yar sa ruux yar sa. voilà yar bu sa xol feesee ak yàlla. doo ragal kenn doo ragal dara doo ragal ñàkk dara parce que loo ñàkk koo ñàkk mu bàyyi la ak yàlla. Mm. mais mm. tey ñun suñu ñun jigéen ñi li gën a metti ñun ci suñu sëy mooy tey boo amul base gëm yàlla bu la waaji nee xuux nga ni tey nga dee bu la nee xii nga ni boo bàyyee ma dee su ma bàyyee ma torox société bi nit ñi sa xol bi day fees del ak ragal waaw dangay mm-hmm. ragal te ragal mm-hmm. ragal boobu lenn ko mën a dind ci yow mooy nga wàqilu ci sa borom gëm yàlla ba jeex mm-hmm. tàq day tax yow dangay dox di bonde parce que yow dangay xam ne fii yàlla rek moo fi nekk nit li ñuy wax du la parce que da ngay xam ni sa destin bi yàlla daf ko tracé ba pare balaa ngay juddu li nga war a lekk di nga ko lekk li nga war a naan di nga ko naan loo warta am doo ko am kon lan moo fi jar tey ngay xool li société bi wax lu nit ñi dox parce que yàlla moo lay àtte soo gëmee ni boo deewee ci biir suuf yàlla lan la nit ñi mën a wax ci yow loo xam ne tey dafay daf la war a atteindre wala daf la war a laal ndax nit ki nga xam ne tey yaa ngi ànd ak moom mu ngi mooy yàlla tey bu dee bëgg nga sa bopp te bëgg nga yàlla kooku doo ànd ak moom doo bokk ak moom yoon doo bokk moom yoon parce que nit ki nga xam ne dangay ànd ak moom muy mooy yàlla kooku bokk ak moom même parce que yow yàlla ngay àndal doo ànd ak koo xam ne mooy yàlla. parce que am na loo xamante ni feebaru jukko la feebaru imaan la. waaw feebaru xol la mm-hmm. Mm-hmm. des fois des da dugg c'est koo dindi. Mm-hmm. des da ngay dugg si sëy sax te fekk yow bi nga ciy dugg peut-être maturoo xam nga. léegi yow ki ngay dugg su mm-hmm. amul iman dalay manipuler ba nga xam ne yow après yow boo demee ba yeewu yow da ngay xam ni kii mm-hmm. mënatu leen def loolu mooy indi sëy yu bëri yuy tas bi ci biir ndax yow boo ciy dugg matiro yow da ngay xam ne yow dafa manipulation tricherie la tricherie parce que ku sincère du manipuler kuy manipuler tàmpet nga parce que nit soo gëmee yàlla gëm ni luy sama wërsëg la dinaa ko lekk bu dul sama wërsëg duma ko lekk kon lu fi jar fen ak tappale moo nit ki boo ko bëggee wax ku mën a nekk lu munul nekk ku ne dem sa yoon. kese ku mënul nekk ku ne dem sa yoon. parce que tamit amaluñu benn njëriñ tey ngay ñëw di tappale di fen di taqale loo nit ki tuur ko lëndëm ba mu dugg ci yow. après bu mm. gisee lu dul dëgg day dem parce que dama ne fen yorul sëy fen mm. yorul sëy fii ku fi fen bay ba takk jabar di nga xam fooy fen ba yor ko liñ naan sàcc tamata doo am foo ko tëggee moo la nar a dal mm. ah. waaw. <laughs> am na sàcc tama yomb na waaye foo koy tëggee moo lay të am na yenn góor yoo xam ne booy sëy ñoom sax dañ lay um ndax yow bu fekkee yow xamoo sa diini jàppoo julliwoo ñaanoo ñaanluwoo yow kooku lan la la mën a apporter ci diine ci sa sëy ci sa sa <laughs> waa kay mooy des fois dama naan sëy il faut que maanaam sëy dafa war a nekk loo xam ne mooy quest que tu ma m'apporter en tan que om wala en tant que femme lan nga ma mën a dooleel tey man soo ma motul parce que dañoo xam ne bu ñu waxee jëkkër kilifa la parce que daf la war a sut daf la a sut ci xel daf la war a sut ci imaan ci gëm-gëm daf la war a sut ci alluwa ci jàng daf la war a sut ci poos parce que daf la war a préserver muy mel tey nga jur doom doom ji ñëw ci àddina amul dara ba pare doom jooju yow nga ni yow yaa ko war a yiir te yow amoo dara xamoo dara problème day am parce que tey nit ki pour nga mën ko accompagner ci ci diine ci sëy day fekk nga ëppalee ko day fekk nga tane ko moo tax tey jigéen ñi ba dañoo xeeb seen jëkkër ndax da góor da lay takk ya julli fajar bu jotee yow yaay yëpp yaa koy yee nga yekk mu la bu ma yeewaat du jeex chaque jour ba am noonu yow nga gis góor <laughs> jigéen boo xam ne day <laughs> yee non. <laughs> yow bu li jotee sa jigéen yaa ñoo ko yor. say doom yaay sonn pour ñu dem jàng alxuraan waaw sa jëkkër day toog tey di seetaan film yoo xamante ni yow. danga koy tere comme xale bu ndaw yow demee yow yaayam en yaayam bul seetaan lii bul def lii jógal julli defal lii waaye yow looy doyee kooku kooku loo koy doyee. ah xanaa te alal bu ñu waxee tey góor moom mooy moom mooy euh, protéger jigéen. mais c'est pour que nit ki nga ëppale ko loo koy protéger maanaam ça parce que nit ki di la yee fajar naan ko eh, bu ma yeewaat de boo ma yeewaatee saa sangam di ko menacer nag teg ci mais c'est c'est triste. c'est vraiment triste. te la la ñuy dund. ah loolu mooy. non dama yëg benn la ay ree dafa ma jàpp la ay ji nee na xam nga jigéen bu baax danga war a defaral sa jëkkër satala bi lalal ko si jaada nga yee ko ne ko yaay jógal julli ma ni ko xay yow lislaam ne la yow yaa war a mottali sa diine jabar moom moo la war di yee ne la jógal julli léegi depuis quand la affaire bi nekk tendance contraire noonu depuis quand. waaw contraire contraire la lépp moom yëpp contraire la. <laughs> jigéen ñi ñoo yor seen bopp. ah mais c'est triste. ñooy defar seen bopp yëpp ba pare amuñu jàmm ba pare il faut nga yee sa borom kër pour mu julli. pour la lu tax ma lay yee pour nga julli boo deewee yàgg sa bàmmeel yow nga waroon yee sa jabar yeewu la moo tax jigéen yi bu jógee seen xol yi di lang waa sama jëkkër du jóg julli fajar ma ni la moo bàmmeelam nga ba ko. moo bàmmeelam. baa nga foofu waaw ah, bu deewee dina xam ni lépp dëgg la lu tax nga koy yee. Hmm. du sotti. billaay affaire bi c'est compliqué maintenant jigéen ñi ñoo war a arrêté di nekk seen yaayu jëkkër mënuñu nekk seen yaayu jëkkër nañu nekk seen yaayu doom rek loolu laa doon waxtaan man leen sànq am na ku fi naan waa man may sama yaayu jëkkër waaye maa ngi koy waaye naan sama xel billaay dee nga am na ci rôle yoo xam ne soo ko gàddoo mooy tuye parti mooy gis nga doomu nit ki ji maanaam jigéen ñi constat parce que lu tax parce que tey sama doom góor il se permet tout avec moi parce que man maa yaayam je l'accepte lu mu mën a def tey yaayam je reste sa mère mais soo amee conception que ni sama jëkkër sama man maa yaayam mais moom amul limite ak yow dee nga il va tout tenter avec toi parce que xam ne de toutes les façons da koy baal amour inconditionnel la. te amour inconditionnel boobu warul nekkul ci diggante sax <laughs> diggante yaay doom d' accord mais diggante jëkkër jabar yaa ngi condition dafa am détermination situation yu war respecté. Mm. mais tey may sa yaay may sa yaay aawa yaay moo tax ma leen wax naa leen ci vidéo bi ma leen aawa yaay gi moo leen rey ba ngeen dee fii ku fi nekk aawa yaay ñu dem takk ñaareel mu nekk jabar <laughs> nag ñaareel dañu def jabar di ko jabaroo yow na nga nekk yaay te yaay nag wax dëgg yàlla enseignement day jër retraite yaay lu muy laaj yaay amul choix bi na toog fi toog rek la te noppi luñ ko def na nangu yaa ko nag aawa <laughs> yaay yaa ko nangu man yaayew maag yow de yaayew maag yow nee naa jigéen ñi kuñ fi ne aaw yaay dina ko mos a ko juruma la sa yaay ngi ne waaw sekku maag yow yaay jabar laa et tu me traites comme une femme. waaw yow ngay fanaanoog man guddi nga may wax sa yaay doo respecté sa yaay tuuti tamit ngeen arrêté seen xel yi ngeen di fowe dafa am loo xam ne dafa dafa ormal <laughs> sax nag wax dëgg yàlla non am na loo xam ne dafa dafa yenwul maanaam. yow bu guddi jotee nga eh, faj sa aajo ba mu doyal ba pare ngaan waaye sama yaay nga xam nga léegi nekk doo jabar cest diir dire bu ñu la bëggee ray rek boobu lañuy ñuy waaye léegi sœur nga <laughs> ah nangam nga man duma sa sœur duma sa bàjjan duma sa yaay jabar la point à mu jeex daak parce que sinon moom du sotti parce que ñun moom wax dëgg yàlla femme sénégalaise moom dañoo dañoo dañoo sonn dañu jël rôle yoo xam ne daal kenn joxu leen ko moo tax nag mooy seen sens unique mooy sens unique benn sens rek la am sens unique la sens unique la de waaw boo taxawee rek oto yi dañuy mbukkanti jigéen bi bu taxawee rek ñaari oto yi dañuy mbukkanti <laughs> embouteillage am yooyu lañu war a bàyyi sens unique lañu war a bàyyi ak ah, c'est normal c'est normal parce que jigéen bu duggee ci sëy xale yi jigéen yi loo leen wax duñ ko dégg danga leen wax boo duggee ci sëy day def toq-toq goutte par goutte. Mm. goutte mm. par goutte. am mais gis nga temps yii damay fàttali benn xa benn xale bu jigéen bi ma doon accompagner mariage day ree ba tas ma ne ko gis nga nag boo duggee ci sëy bi goutte par goutte gis nga li ngay def goutte par goutte amul yuri amul ay je bu dul jeex. yow mm. xaaral moom mu la je bu la waxee je bu ko ne sax moi aussi. bu la nee tax doo ma ne maa aussi nga ne ko fi mu nekk dama lay étudier su ma demee ba gis li tax ma ubbi sama xol bi rek ma jox la sama xol te ubbi xol bi fii ba 1900 ne ma xol waa ji day jékki-jékki ne ma a takk yow doo nekk di cëfër cëfër ah baax baax nee na mu ne ko li fi mu ne bu mu daf may xool chaque jour mu ngi jéem a xool di càmbar lan lay xalaat lan lay xool affaire bi da ko torturer ne ko lii nag mooy góor bi mooy sëy parce que là moom li ko préoccupé mooy lan moo tax amoo tifar tifar gi sa moroomu jigéen ñi am fi mu nekk nii nag c'est à lui fi mu nekk dina fexe def la tout pour accrocher la dina la loof bombing ba ngay bëgg a dee dina la rek appel yu bëri bébé noo def bébé noo nii parce que dafa bëgg nga accroché wu boo xasee booy accroché mu lay bif ngay wat il faut faire très attention waaw dañuy ñëw di la miinal seen bopp di la jege di la kii tout le temps wax yu du wax yu neex lépp pour nga accroché wu soo accroché di man ne ko bugg mu sa wan ni accroché wu nga dangay dem bay accroché wu rek nga rocceeku waat toog di ko xaar. bu ko defee day ree ba tas non parce que jigéen ñi dañu manqué construction. mooy éducation bi c'est pas fait pour à notre faveur. waaw mm. ah, éducation bi ñu ñu recevoir du jouer suñu faveur parce que éducation la boo xam ni on nous a on nous a appris à des des servitudes des servi serviteuses xaw ma pas à servir mais pas à recevoir. jigéenu sénégal tey am na ñoo xam ne dañu am problème sax recevoir en fait maanaam mënuñu recevoir tey même bu ñu leen defal teraanga wala seen jëkkër di leen te elles ont du mal parce que comme si ñoom dañu war a redevable dañu a fay dañu war a multiplier teraanga waa sama jëkkër daf ma teral sama jëkkër daf ma lii et des fois yaa des teraanga empoisonné dans quel sens góor mun na tax jëndal la oto tabaxal la kër waaye tey nga dee di ko fay jusqu'à dernier centime parce que dina la teg ci xeetu mbugal goo xamante ni psychologique tere la ay xeetu tere du la may sa liberté du la bàyyi si sa jàmm et que yow di nga dem ba nga xamante ni un deux trois nga dégg boo xam ne dina waa xam nga man mënu ma dem parce que moom daf ma ji teraanga ban teraanga la la ji. parce que waa de dukkal na ma fii jëndal na ma lii dafa mais c'est normal tu es sa jàppale gi mais jàppale woon c'est son devoir. Hmm. c'est son devoir te loolu problème la su demee ba nga xamante nit ki da jàpp ni lii mu ma defal nii ma joxe exemple jigéen ñi ñuy indi fii en Europe sa jëkkër daf lay fii indi. mu di la buggal guddeeg bëccëg di la dundaloo n'importe quoi nga ni duma dem parce que moo ma fi indi mais <laughs> mais attends mais nit ki lay mbugal mbugal bi kañ la bokk ci sëy mais indi bi force la parce que tey bi l'islam di wax euh, sa devoir en tant que femme dëkkal ak dëkkoo dëkkoo bi fu ñu ko teg continent boo mën a nekk daf la fa war a yóbbu ba mu des yow nga bañ mais loolu mooy farata léegi comment se fait tey jigéen bi nekk jigéenu sénégalais yow booy ubbi sa gémmiñ ñu ne waaw xam nga nag daf laa teral ndax daf laa jël yóbbu la Europe ñaata jigéen lañ fi indi di leen toroxal ñaata jigéen lañ fi indi di leen maltraité kon léegi yow soo jàppee indi bi mu la indi faveur la wala indi bi mu la indi daf la defal njekkool dafa defal teraanga boo xam ne kut au kut da ko war a fay mais yow tu es mal parti parce que nit ki dina la toroxal nit ki dina def du quoi dama koy gis chaque jour jigéen woo ma waaw sama jëkkër daf ma dóor sama jëkkër daf ma def nii daf ma toroxal et après soo waxee mu ne waaw mënuma dem parce que moom moom ma fi indi kon kay mënoon na la bàyyi foofu rek bu dee daf lay indi ba pare dina toroxaat dina dóor mënoon na la bàyyi foofu. maa ngi mm, ziar bu wér di la. ñu ngi dellu di la yàgg suivre nag. di la yàgg a suivre macha allah am na solo yàlla na yàlla fay. yal na yàlla dëgëral yal na yàlla gën a wéral xel bi macha allah sell na donc di wax rek ne tey moom dama daaw ma dugg daaw ma kii dama daan déglu rek mais tey moom pratiquement point bi ngeen mm. dugg dafa dafa daf ma laal pratiquement dafa dafa am solo te dafa large mm. dafay laal jigéen ñu bëri nag mm-hmm. pratiquement mooy suñu problème mm-hmm. parce que jigéen ñi jigéenu set maanaam suñu culture daf ñu protégé wul dara dara dara dara dara dara. tax na jigéen ñi métit bi ñu man man li ma si gën a jaaxal femme bi sànq mu ngi koy wax lan moo tax sëy yëpp sëy yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp am problème man maa lay wax ni la duma xale mag la mais damay toog ak samay xarit ak samay kii mais koo ci toogal wax ak moom mu ngi dund loo xamante ni danga naan déedéet <coughs> danga naan sax man kon man li may wax man naa toogaat ndànk te nag mm-hmm. warul demee noonu say warul metti warul metti warul doon ah, torture warul doon torture ñaari mag ñu nekk ànd te yàlla tax kenn ku nekk amoon na fi dafa war a daw ci li neex moroomam li neex te neex yàlla ku nekk di dawal mm-hmm. bànneexu moroomam mais bu demee ba nga xamante ni kenn rek jigéen gi rek moom la ñu yan lépp yan la sëy bi ngay daw ak moom te yow maa ngi jéggalu doo dégg jaajo mu ne yan étude psychologique nga def l'approche systémique laa def mhm. maa dafa dafa doy waar mhm. man man man je prends mon exemple sama sama sama sëy euh, mhm. finalement tas na <laughs> as leen seeni ndox et après 17 ans de mariage yoo xamante ni maa ngi woon nekk kilifa yore sama njaboot yore sama waajur xoolal loolu di yore sama liggéey 17 ci koo mm. xamante ni dama doon wax naan dama bëgg borom kër bu am diine ku may jàppale ci sama diine. ma yem ci moom nag muy doon donte muy tuubeen mais mu nekk ku bëgg diine. Mm. ku bëgg ah, diine bi mu ñëwee fekk na ma ak benn doom boo xamante ni je l'ai dans un premier mm. mariage. mais ñun ñëpp mu ëmb ñu vraiment di ñu jàppale tamit ci suñu diine di ma yar ci diine daf ma daan wax mm-hmm. duma la duma la forcer dara tout au début ah duma la forcer dara mais mm-hmm. jàngal sa diine rek jàngal sa diine ma di ci góorgóorlu mu mu génnee sama doom boobu école française yóbbu ko madrasa alxuraan mm-hmm. muy jàng doom yi ma am yëpp macha allah ci alxuraan la ñu jàng avant ñuy dugub seen école française mais waa man dama gis ni sincérité bi ñuy wax gars yi dañu bëri ñoo xamante ni dañuy dañuy maa ngi affiché indo di di kaboy dañuy affiché indo di joué kaboy te nag c'est pas facile parce que bu fekkee ne mariage yu immigré bu n'êtes pas ensemble peut-être euh, ay vacances la onze mois sur douze bu vous voyez ngeen di gisante pour ngeen xamante dafay jafe surtout si koo xamante ni daf lay bëgg nëbbu boppam nag daf lay bëgg na bu moppam pour ngeen xamante si un mois yooyu dafay jafe mais da ngay dem ba liñ naan euh, nit ki moom euh, bu bu ngeen yàggee rek euh, jikko yi jikko yi day daal di génn ku nekk melokaanam day génn jikko yi day daal di feeñ da ngay dem ba nga xamante ne yow ki nga nekkaloon yow ki yaa ngi yaakaaroon ne da nga ko xam mais xamuloo ko parce que lim la doon jàngal di la ci mm-hmm. forcer ndekete moom dundu loolu dundul loolu mm-hmm. man pour vous dire que euh, sama borom kër naroon na ma may sama baat si sama fas fasu doom fasu bañ xale yi ñuy defal fasu bañ bu ñuy sax bañ ñu leen di mm. defal fas. waaw sama yaay moo ko indi woon. moo ko indi woon ma ma takkal ko sama doom moom ko indil jox ma ko ma takkal ko mm-hmm. sama doom. dama ko kon na nëbb parce que moom lépp luy ay ñaan lu ay affaire kii il n'était pas affaire sëriñ noonu dañ doon dund sunna waaw dañ doon dund dama ànd ak moom ci loolu nag. mënoon na ba ko sama yaay dama ko ko takkal. waaw mm. exactement dama ko ko takkal. Mm. dama ko ko takkal mais dama ko daan nëbb à chaque fois pour te dire que loolu yàgg na on parlait sur Skype. dama ko ko daan nëbb à mm. chaque fois bu ñuy wax damay nëbb damay jël dara couvrir xale jour bi mu ko gisee ni ma lii lan la ma ne ko lii de sama yaay moom ma ko joxoon rek pour mu kii. il a fait un boucan. mais ndekete waa ji kuy kuy kuy fétiche fétiche lay def fétiche magum magum magum magum magum sëriñ inna lillahi wa inna ilayhi dem naa ba gis ci avant brawam ki doon tere fas dem dem naa ba gis ci avant brawam mi dama gis ci avant brawam mi mu ñuul benn rëdd autour de l'avant bras mu ñuul ma defe ni sax ma naan ko lii lan la ma defe ni sax tatouage la woon tatouage la woon temps wu tatouage comme ni El Hadj Diouf ni mu defee kiyam bi noonu tatouage bi wër loxo bi noonu la ñuulee waaw ndekete affaire bi ndo ndomb la oh, ah, ndekete affaire bi ndomb moo ko def noonu billahi wallahi wa taala nga dañu dem ba mu mujj xoola wallahi mu mujj gi xoola les deux dernières années là y a trois ans mu daal di takk jabar takk jabar wàcc imaan gi nag daa mu soog a feeñ nag tereetul dara digleetul dara moom la tereetul dara digleetul dara booy tappale ba booy tappale ba takk jabar ni yoree moo lay bu ñëwee xoola ay ay ay ay day dem ay tubaab fu nekk ay dubuti ay kii bu ñëwee day rangale ay huit siwo di sangu danaan tey journée sangu la ma gi dam koy xool ma naan ko mbete mbër di reetaan ci koo euh, ko takk ci yàlla suñu quinze ans les quinze premières années yi ma nekk moom te man dama dund si dund ma woon sunna avant dama daan dem dama mm-hmm. daan seetlu dama daan def mais depuis bi mm-hmm. ma takkee la arrêté lépp. tout au début daf ma doon solloo burga ma ne ko man xoolal boo bëggee ma sol burga ma ne ko jële ma yàlla billaahi da ko doon jënd na ay pourtant je l'ai payé très cher ma ne ko mënuma ko fii. ma ko boo ma yóbbu woon bañu ma ko woon sax dama ko ne woon boo ma yóbbu woon foo xamante ni dëkkuma fa xamuñu ma ma toxu fa bees mën naa ko amul problème mais fii juddu rek laa fi mm. deful et j'ai vécu dans le développement communautaire dans les mouvements associatifs lu ne def naa ko am fi samay nit am fi samay kii ci narcissique la bokk malheureusement bu ñu duggee ci diine dañuy taral taral nga fekk ne lépp féeg la lépp féeg la il m'a créé tellement d'ennemis mais au fond mujj gi xoola ay ennemis yu jeex parce que sama exactement sama kër kuy dugg H24 il est au téléphone avec mois H24 dañ ma daan wax yow sa borom kër bi du ngeen toog ba si yàgg du ngeen amati lu ngeen wax parce que tout le temps vous êtes au téléphone ma ne leen déedéet ndax dafa bëri dafa bëri wax ma bëri wax mais gis nga bi mu takkee jabar daf may bloqué pendant deux mois teg téléphone bloqué damay toog ba si yàgg mu ne ma xoola bàyyiloo ma <laughs> liggéey nag wallaahi bàyyiloo ma liggéey bi muy bi ñuy xamante on s'est connu en France ma jógee Canada mu jógee Canada on s'est connu Charles de Gaulle ñu ñëw mu ne ma bëgguma kuy liggéey ku ma toogal Sénégal lu ma am ñu bokk oh j'ai tout abandonné toog Sénégal abandonné lépp ngir moom lépp lépp lépp oh bàyyi lépp bi ko au début sax j'avais résisté mais góor ñi di wax yow yoroon na yéen lan la leen ji lan la leen góor ñi def lan la leen góor ñi def avec tout ça avec tout ça. xoola waaw man su ma wax ñu ne waaw la góor ñi def. <laughs> wallahi dama lay déglu boo dama lay déglu day mel ni man ngay waxal. parce que je me dis que ni tellement j'ai consenti tellement de sacrifices. te xoola mu gi day toog naa ma qu'est-ce que tu as pour moi yow loo ma defal. Ah, eh, ah, yow ñëwoo sa benn morom <laughs> loo ma defal. ma koy xool ma ne ko dara quand il me pose des questions je trouve pas dama naan ko dara mais dem ba caatlu non c'est douloureux je suis à mes quarante neuf ans il deux mois la ma woo mu ma may naa la sa baat xoolal loolu may na la sa mu nekk loo xamante ni nag may sant yàlla nag wax dëgg yàlla ndax après dundee naag man ci trois ans yi waaw si trois ans yi dundee naag man noo xamante ni pratiquement je me disais que ni bëggatuma woon. mais il m'a poussé à bout à ce ma ñaan ko baax parce que waaw émotionnellement exactement mu ngi noonu waaw kay mais dama ni woon rek naa toog parce que gis nañ fi nekk mm-hmm. gis nañ fi ñu takk jabar abandonné seen jabar mais après bu ñu demee tamit mm-hmm. dañuy ñëwaat da ngay gis da ngay gis koo xam ne abandonné na jabaram dem ba mujj gi xoola ci mu abandonné ak njabootam sax exactement moo koy mm-hmm. mujj yoraat ma ne noonoo garaawul naa toog rek am xippe xool ci moom ba mhm. yàlla dëpp ko far yàlla mhm. moom mu yamale ko fa far duñu bàyyi ni ma daal bu dee te wa avant waxee na ko nu nekk bu ñëwaatee def la lu pir exactement avant waxee na ko junju waaw dañ lay junju avant waxee na ko nu nekk ku lay bëgg ngay xaar mu ne sama mhm. xol mënatu la bëgg bu ku lay bëgg ngay xaar ci kër gi mën ngaa dem non bu ñu paree génnal sama kër xaw ma yow lan ngay wax waaye bëgg danger lay doon ci yow <laughs> nee naa jamono bëgg danger la de ndax xale yi yi sax boobaag léegi bu ma gisee sax ku may waxal parce que ñi ñenn ñi nga xamante ne xam nañ ñi ma xam nañ ni sëy bi dakk na ñuy commencé di approché hmm. bu may waxtaan ak yow sax en tant que ami bu nga dugg ci waxu hmm. mbëggeel damay en sama hmm. xol day tàng wallahi day damay mer <laughs> je t'arrête tout de suite wal kitaab donc loo mën a wax rek am na loo si bàyyi am na yoo xamante ni je me je me disais que ne dama daan damay toog tiktok ñiy toog di raconter seen bi mais des fois ça fait du bien de parler et tu peux pas parler à tout le monde là. non ça du bien mais dam lay déglu yow c'est libérateur c'est libérateur exactement ah. exactement mais daal loo ci wax rek am na loo ci bàyyi bu ñu ragal wax bu ñu ragal wax parce que wax daf lay libérer mais wax aussi dafay avertir ñeneen ñi aussi wax mhm. thérapie la day tax nga dindi rancune mhm. bi nga xam ne dafa nekk si parce que colère ngay àndal y a des yoo xam ne su la ko góor dundloo tu es en colère moo tax des jigéen day wax rek nga xam ne eh, kii dañu yàq àddina comme même boo mënul dugg mhm. ci ay détails nit ki bu xamee bu amee tuuti rek lu mu dund ci àddina dina comprendre que ni dund nga lu metti waaw du tout le temps damay wax naan euh, sëy am na nu muy mel nit ki bu la fasee délivrance la en fait waaw des dëgg la mhm. euh, metti na mhm. parce que tu as tout abandonné mhm. pour lui parce que tu t'es sacrifié pour lui mais après ni nga doon dundee ci biir sëy bi tax na nekkul woon sëy boo xamante ne boo ci nekkee da ngay am jàmm enseignement damay wax ni na sëy yoo xam ne man dama yàlla suñu borom bu dogalul woon divorce nga gis jigéen ñu xaru moo tax dama wax ni ñun jigéenu bu amee xéewal bu bu ñu yàlla defal muy divorce mooy possibilité am na à un moment donné ma chérie pour te dire pour appuyer ah. daan dem bay toog di ñaan di ñaan di ñaan di ko ñaan yàlla na ma yàlla rey parce que ñaanatuma yàlla jóge ci sëy bi dama ko daan ñaan yàlla yàlla na ma yàlla rey bu fekkee ni nii laa nar continuer yàlla na ma ko yàlla metti abrégé imagineel nga affronter 17 ans de mariage mu douleur comme sax nga bëgg a affronter waat divorce divorce dafa metti parce que divorce poids bi même bu dara genre humiliation lay doon comme si nit ki daf la utiliser ba pare sànni la di nga sentir humiliation di nga sentir trahison di nga sentir rejet société bi surtout nga gis ñoo xam ne dañuy ñëw naan dañuy defar te xamuñu ne li ñuy defar ba mu yàqoo kenn xamul bon 1900 la. nga exactement loolu moo am lii mooy li gën. c'est ça mm-hmm. mooy da ngay gis ay nit ñëw defar te xamuñu ne lii ba mu yàqoo dafa yàgg. Mm-hmm. am na sëy yoo xam ni. Mm-hmm. soo ko dégloo da xam ne lii kenn mm-hmm. mënu ko defaat malheureusement. yow kay yaay defar waat. yow sa bopp yaay defar waat. mais pas effectivement waaw. mais nag nañu sant yàlla mu ngi noonu daal xamante ni yàlla jeexul. macha allah naan tout le temps yàlla ñi mu bëgg defar ñoom lay nattu. parce que pour man ñun jigéenu sénégalaises yi leçon yi ñuy jàng ci trahison yi ak divorce yi mooy nañu delluwaat ñu bëgg suñu borom ñu jël suñu dund gi ñu wàq. xëyul ci suñu borom. et que ñu jël suñu mbëggeel gi ñu jox ko suñu borom ñu am imaan am tawxiit goo xam ne day tax góor bu la bëggee njor te def yenn yi sax <laughs> non gis nga boo amee imaan bu dëgër am tawxiit am na góor yu mu lay def sincèrement danga ko naan jëla say bagaas nga dem ndax yow dana leen sëy bi doo ci am yàlla mhm. gis nga dama naan euh, am na ci xista boo xamante ni ñëw na si ñun mais ba tey ñun jigéen ñu comprendre bañ ko gis nga saxaabiyaat bi nga xam ne dafa ñëw ci sa sam ne ko kenn ci saxaaba yi mu doon seel fàtt naa bi mu ne ko defuma dara ku am diine la ku baax la mhm. ku gëm yàlla suñu borom la waaye man maa ko bëggatul sama xol moo ko nangootul damay bañ a injuste ak moom kon foofu da ngay dégg ci wax jooju que ni mhm. jigéen bu demee ba bëggatul rek mën na injuste te léeg góor ñi dañ lay def ci sa xol yoo xam ne day dem ba yaa ngi nekk sëy bi te bëggatoo leen yaa ngi nekk sëy bi malgré yaa ngi nekk sëy bi dundee yaakaar que ni jour dina jot mu changé te man dama ne sëy soo demee ba yow kaasu ndox soo ko yëkkatee bëgg koo jox sa jëkkër yow tu sens que yow euh, vraiment sa xol nanguwul sëy boobu amatuloo fa def am na jigéen ñoo xam da ngay dégg jigéen ne la man bu may sekk ak sama borom kër sa damay jooy parce que da mënuma mënuma ko jox sama bopp mais loo fay def te loolu ñaata jigéen lay dal góor mënul dina la toroxal yenn xeet toroxal yi ba cëg guddi nga bëgg ànd ak moom ci xol bu sedd ci xol bu neex mënul nekk bu ñu naxante ñun nag léeg-léeg dañuy nax suñu bopp di fen suñu bopp bay dund suñu biir ay fen ak suñu biir nax def koo dëgg ñu di ci dund nag carrément mu nekk réalité boo xamante ni ñun ñoo ko construire suñu bopp et c'est douloureux moo tax dama xam ne gis nga yàlla yàlla da koy bëgg mën koo jaamu te sëy jaamu yàlla la te sëy boobu mm-hmm. mbëggeel bu fa amul munoo ko mënoo mënoo fa jaamu yàlla te nit mënoo bëgg ko lay mm-hmm. gaañ dañu xam te dëgg mënoo bëgg nit boo xam ne il t'a tout fait sacrifier ba pare mayu la jàmm ko bëgg. loolu c'est impossible may xool wallaahi maase wallaahi wallaahi wallaahi. lii fi gën a metti moom mooy xale yi nga xamante ni daf leen yar yar leen ci boppam il était le centre de notre vie pratiquement parce que tout le temps au téléphone parler aux enfants xale yi sax woowu dootu leen. c'est ça le wax ma ne ko xoola c'est vrai que jeex man naa am beneen jëkkër yow man nga am beneen jabar mais xale yi mënuñu am beneen baay. non du mënu ci daal ci daal e, effectivement fu mu gën a méttee sax fu mu gën a méttee. foofu la ma ne xale yi xoola école école ya lay jaar te école seen école lay jaar di wax ak seen i directeur ak seeni i enseignant man mu may tëb bu yónnee même seen i inscription seeni i fourniture. gis nga man su ma jëlee fiche yi foto ko yónnee ko ñoom lay woo wax ak ñoom. lu muy lu muy yónnee ñoom lay wax. pour dem naa ba ne ko mais yow. tamit fee waaw. c'est pareil mooy da koy bloqué rek ci sa ci sa kii yëpp xale yi bu ñu nekkee ay mag bu ñu soxlaa seen papa ñu am ak moom interaction directe yow tu le bloques et tu passes autre chose damay wax ni en ce moment nit su capable de def yenn yi mm-hmm. Mm-hmm. mais nga am mu am portable boo xam ne moom ca la leen di woo nga bañ a am ak moom benn interaction parce que en ce lu jafe la mais da ngay gis ni am na ci situation yoo xam ni nit ki dalay pousse malheureusement ci ngay defanteeg moom léegi na yow loolu ngay éviter. mooy dama lay croire mhm. ci sama dund rek. ku ne ku mhm. ku ne jël sa sa yoon. dëgg la parce que bu ma ko toppoon ci defa du ma ko toppoon dem naa su ma ko toppee dama ah. dem naa dem naa bani ko. bani bani man naa génnee xale yi si école yooyu comme ça dootul amati benn comme loolu lay def naa génne te moom loo effectivement lool laa xalaat ma ne kii su ma ko toppee sax dinaa yàq avenir xale yi. c'est waaw kay. parce que mën na nekk yow fay bi mën na mën na cher ci yow. te dama naan bu boobaa day yomb loolu ci moom. mu mhm. toog deful dara waaw. bàyyi ko mu parce que gis nga loo xam ne. Mhm. dafay jeex xale yi dañuy màgg léegi te xale yi lépp la ñuy gis aajowul ñu leen di nettali dara mhm. dañuy gis lépp. waaw lépp la ñuy gis. moo tax nag euh, di courage waaw yombul de ndax jigéen ñi moom nee naa ko lu ñuy dund te situation générale général ñëpp a koy dund nag ñëpp Mhm. wallaahi wallaahi amiin waay yaa ko wallaahi wallaahi parce que une question que je gis mais macha am na ay mag ñu am 60 ans ñu say 30 ans ñu say 40 ans dama leen di gis samay formation ñoo xam ne elles sont détruites elles moo tax tout le temps waaw bu ñu leen comme suñu yaay man leen suñu yaay elles sont détruites ay xottu nit kasa lañu yuy dox ak ay ah, maladies yu dul jeex waaw nañ ñu may jàmm wallaahi wallaahi moo tax nangootuñu muñ yenn ni comme suñu yaay ma leen malheureusement malheureusement. wallaahi ma chérie a nekk parce que tey boo gis tey ñuy toroxal sa yaay di ko maltraite d'une manière après yow nga ñëw nga ne dangay bëgg ci sur ses pas mais <laughs> da gis loo xam ne dala tiital. munoo jaar sur sama doom bi am quatre bi am quatre ans et demi cinq ans danaa ma danaa ma yaay lan moo tax papa chaque jour muy xuloo rek lan moo tax papa di mer ma ne ko déedéet dara day kii rek sa papa noonu lay waxe waaw sa papa chaque jour day xuloo lu tax mu lay xulool elle se pose la quatre ans et demi la am su ma yàgg ah, quatre ans demi. parce que c'est pas normal mais daal yal na yàlla. c'est pas normal wallaahi. moo tax dama am na góor ñoo xam ne loo gën a teel a tas ñoom gën a sauver sa njaboot. parce que tey su ñu nekkee sa njaboot. buñ ciy dugal seen loxo sa njaboot jël même comportement que ñoom. parce que tous les tous les familles nag à un benn benn hmm. lay deglu nga ne boo fi nekkee di sëyal nit ñi. Hmm, hmm. maanaam di di toog di xalaat li nit ñi wax di wax ba nga rey sa bopp. loolu aussi yow yaa koy def sa bopp. Ah, xam nga je l'ai écouté je t'ai benn live boo def. mais est-ce que say doom dañ ko fekkee waaw. Mhm. après loolu laa wax man leen da ngay pour say doom mais est-ce que boo boo continuer doo dee da ngay guwaat dee tu am cirrhose dee say doom ñàkk. ki lay torturer yow yaa ngi fi mu lay torturer. du ñàkk du ñàkk ki may wax ay sëram ñu ci live bi ndax samay formation lañu ñu elle était avec une un pervers daaw heure bii la nekk samay formation mhm. nekkoon na ci année précédent nekkaat ci daaw daaw heure bii la nekkoon samay formation même pas avril mai la décédé cancer cancer bu métastasé partout ci yaramam mhm. te bi muy ñëw ci man elle en souffrance ndax dundu naqar gu yàgg dundu naqar gu yàgg ana ay doomam tey ay ci ginnaawam la ñuy tekki te loolu ay sërëm ñu ngi fi di ma dégg maltraitance de man chaque jour ma ay femmes yoo xam dañuy ñëw samay formation d'études avec des goitres avec avec des cancers avec du n'importe quoi mais pour lan ñuy àgg xaar ba egg foofu. Mhm. après moom mu dem. takk keneen ma des fois dama lay déglu. des fois la colère. mu ngi noonu de des fois dañuy toog nga wax ak sa bopp j'assiste. mu ngi noonu ngi noonu des fois da ngay toog nga am force. parce que ay haut la ak i bas des fois naan mais je me dis mais koo xamante ni bi koy yàlla bi lay yàlla di sàkk moom taxul moom jëmmam ji rek taxul moom benn ah, nit mu ray la téeméer di la jooy warul demee noonu pourquoi ñu jël suñu dund centré ko ci ci dund kenn nit bu ko neexee mu neexal ko bu ko neexee mu neexal ko mais après da da ça te permet daf lay revigoré mais après est-ce que bokkaale wuñu parce que mm-hmm. yow dama ne yow da ngay gis ñoo xam ne sañuñu julli jot ñu bàyyi fi leen seen jëkkër sant dem julli ci parce que ñun dañu jël góor bi def ko ah. centre sa dund lépp looy def looy wax looy kii da koy tàggu su meree nga ni nii danga maanaam ragal dangay jigéen ñoo xam dañu ragal seen jëkkër ragal goo xam ne ragal ko yàlla yow yàlla lu la tere nga ni mën na xaar mm. pourtant sa jëkkër lu la tere ragal na mm. ko def lum la sant soo ko defee day nga dee bu téléphone bi sonné nga naaw juróom-ñaari asamaan wàccaat mais pour lan. pour taa nit la nit rek la. ma sama loolu sama yaay mu ne ma man dama la seetlu mais yow dundoo. dundoo kay. Ah, di tout comme de c'est tout comme c'est tout comme c'est tout comme. droit bi leen jox ci suñu dund yàlla joxu leen ko. déedéet. mais say àndandoo rek la dañ ciy abusé dañuy ànd jàmm yàlla bu doon yërmande bu doon sax ñu ngi dëppoog li leen suñu borom sant maanaam yiir yërëm même bu ñu doon dëppoog li ñu ah, suñu borom sant mérito wuñ ko mérito ñu ko dafa am mbëggeel goo xam ne dafa am ragal goo xam ne yàlla rek moo ko mérito doomu aadama yayoowu ko nit warula yéem fu la yàlla yéemul sëy nit ki na la may jàmm warula fitnaal warul yóbbu sa fit yóbbu sa furu farat ba nga xamante ni yow dangay toog sax sa fit bi di palpiter di tëb parce que ragal gu gu sori la goo xam ne benn peur buy ancré même boo tasee ñoom peur boobu dalay topp. après loolu daf lay dugal ci di fen <laughs> sax daf ci di. daf lay dugal ci ngay fen daf loolu la di lay dugal ci ngay fen non je l'ai vécu <laughs> hmm. dugal ci nga fen hmm. di wax loo xamante ni après ay bombe à retardement la. parce que yaa ngi ragal réaction am yaa ngi nga wax leneen loo xamante ni yow xam nga ko. ni mu ko bëggee rek nga koy waxee après loolu bis ñëw. nga koy xam nga nga rek seen. waaw. ñu noonu exactement. parce que tu as peur donc yal nañu yàlla a parce que yow xam nga ni. yal nañu xamante ni du la gënal. waaw moo tax nag eh, man nee naa yàlla ba nga xam ne doomu aadama nu mu mën a mel. bu la mhm. bëggee fatt sincèrement nga ni ko nag wax dëgg yàlla ànd neex na lool waaye à ce point là moom ku ne na dem dama naan dañu tollu jamono boo xam ne ku ragal dund loo xeetu musiba boo xam ne ci kaw suuf. parce que dama ne ci loo ni suñu demee ba xam ne yàlla rek moo ko yayoo. moo tax man ma ne ñun jigéen yàlla daf ñu seetaan de daf ñu seetaan parce que dañu jël suñu sant bu ñu waroon ci teg yàlla ñu teg fa góor et c'est normal et c'est bien fait wallaahi c'est bien fait pour da ngay gis góor ñi sax dañ ciy abusé da ngay wax ak nit. kii keroog damay wax ak sama benn cousin rek ma ne ko mu maa ngi lay woo rek ngay jokkoo ma ne ko waa dama doon jokkoo dafa am ku ma doon waxal mu ne ma ah ku nekk si rang bi la man maa ngi ci rang bi de ma ne mais ko mais yow dama mer ma ne ko mais yéen lan moo tax ngeen yaakaar ni rek nit ki moom jigéen moom góor rek moo war a doon problème am. man dafa am ku fi nekk dafa am rang bu fi nekk ma ne ko man c'est une information que tu doon la là man c'est une information parce que man. dama fee nekkul kenn di rang yow yaa ngi fi man yëguma sax ne yow yaa ngi ci rang bi parce que man dama fee nekkul pour góor ay góor mun naa ma noonu basi bi man du loolu dama la doon wax rek ma ne ko non non nekk une femme épanouie une femme qui s'assume mais da leen di jaaxal parce que en ce moment dañ naan que yow sa dund góor la war a doon yow su fekkente ni amoo góor sa dund war a dund ah, après yow leen di xool yow ay da lay que da nga xam ne yow sa objectif du góor sa objectif jaamu yàlla la góor bu mel ni yàlla bëgg na soo ko gisee nga sëy soo ko gisul tu vis ta vie bien et tu es avec tes enfants lu la góor mënal mënal nga ko sa bopp ndax doole doole kese la xale nga tu es jeune takk sa ndig liggéey bu la góor yi capable jëndal oto nga capable jëndal sa sa bopp oto bu tooy bu la góor capable tabax kër capable tabaxal sa bopp kër kon góor bi lu mu la mën a apporter paix sérénité spiritualité su la ko mënul apporter na ne mott ku ne jël sa yoon parce que sëy dama ne dafa am loo xam ne ku ne dangay apporter sa morom waaw moo tax nag ginnaaw dama ne gi bu amul mbaa mu jafee rek ku ne toog ci sa position ndax sëy moom bu demee ba nga xam ni mbugal lay doon ak fitna sincèrement man gisuma lu ko fi jar waaw te dama ne dañu toll jamono boo xamante ni ku ragal a sëy di nga am problème ku ragal a tas kon di nga am problème waaw jamono bi ñu toll moom nee naa ku yeboo ku nekk rek na nga ko def ne <laughs> ne kuy doxaanante rek. Ah, da ngay dugg di génn ba keroog ngay gis loo xam loolu parce que bu dul loolu malheureusement. loolu la regardu société bi la nag moom moo moo protégé wul jigéen ñi la société. la moo ñu gën a rey parce que loolu la. dañu toll jamono xamante ni il ñu assumer suñu bopp mooy société bi li muy li muy bëgg. ak li muy mhm. bañ ñun du loolu lañ fi yàlla indi. Mhm. ñun li ñu fi indi ci mhm. kaw suuf fii muy jaamu yàlla yàlla. bu ci société moo xam bu ci àndul moo xam parce que boo deewee sa bàmmeel bee kenn doo laaj société bi de sa lañ lay laaj say jëf lañ lay laaj. te loolu tey suñ ko xamul mooy sacrifié nañ suñ dund yàq nañ ko xaaral ma salaamaaleykum eh ubbi leen muus bi waaleykum salaam wa rahmatulah waaw ah, mais dama doon wax ci beneen boobu te lépp nag mm-hmm. souvent dañ koy teg ci diine meneen li ngeen di wax ni du diine de moo koy def moo koy wax moo ko wax de sama aliwa surul jànguma waaye am na yoo xam ne moom yëf maa la waaye dañ koy jël naan diine mm-hmm. dama dégg ci panel bi ma ne waaye gis Sénégal ab góor mu yore jigéen pendant quinze ans am ak moom ay doom léeg-léeg mm-hmm. da koy fase ci lu ci bakkanam rek ci loo xam ne jarul tous wallahi jarul fase. wala takk ku rek fase ko. mu mu ne ko fase naa la. jëlal say doom. du am justice du am dara te dara du ko ci fekk. non bu doon Europe la bu ma accompagné xaw ma kan waaye balaa muy fasewaate dina ko rëccu. am <laughs> góor bi maa mu nekk ñoom. seen doom bu bu doom yi demee du ñu du ñu toppatoo seen i doom. loolu dafa bari. xalaatuñ la go beneen jabar la ñu takk di ko toppatoo mais pas ay doom démb waaw wallahi jigéen ñi fay sëy ay jàmbaar dëgg lañ mais ah, su li nga wax ma li nga nii ma ah mm-hmm. euh, yàlla moo dig de sëy waaye mm-hmm. mm-hmm. sëy du du du maanaam da nga ciy nekk di rey sa bopp te loolu tey jii nii moo am ñu bëri ñoo xamante ni mhm. comme niñ leen wax loo xam nga ci wax sànq ne maa ngi maa ngi ko bind sax commentaire parce que xamoo mhm. foofu wax jooju ñu ne ajjanay jigéen mi ngi ci ñaari tànk mhm. euh, jëkkëram ay naxee mbaay la ay naxee mbaay la ay naxee mbaay la yaa koy lijjanti sa bopp ku ko doo ko am moo tax xam ne ajjanaam sax leeru ko yow ñu jël sa ajjana di ko teg ci kawam. effectivement <laughs> c'est-à-dire dañ leen a dañ leen a dañ leen ay ay wax yoo xamante ni. loolu de ba ma ko saawaay dama ko ree ba muy bëgg dee mu ne ma léegi looy ree ma ne ko yow sama ajjana nekk ci say tànk yow yow xool nga bopp yow ci kaw ba ci suuf. <laughs> wal wallaahi la wallaahi la ma ne ko non mais <laughs> te dañoo soufflé ci seen bopp des choses yoo ni maanaam pour ñoom sax pour ñu. c'est ça pour ñu divorcer wu. daf daf dafay métti ci ñoom parce que. ñu ngi sóoraale aussi dafa diis jigéen ñi Sénégal yi regard société bi dafa diis. dafa diis société bi waaye yërëm naa leen te eh, jigéen ñi Sénégal ah wax dëgg yàlla de jàmbaar lañu de. Ah, ay jàmbaar lañu de ay jàmbaar daal man daal nee naa ni suñu xeetu sëy yi ñuy sëy Sénégal amul fenn ndax fii ku fi sëy ku dul Sénégalais gis différence bi. ah ku fi sëy ku dul sénégalais nga gis différence bi. wa wallaay parce que day euh, jii nii booy seet am na kër yu nekk Sénégal jigéen ñoo ko yore. di góor ñi léegi ku ci am cinquante ans Sénégal cinquante ans cinquante et doo dootoo def dara. cinquante ans bëri na cinquante ans léegi yow <laughs> waaw. cinquante ans kay bëri te malgré tout ça. Mm-hmm. soxna si malgré tout ça. xoolal ñi ñi ngi xool beneen jabar bu ñu takkat. billahi man en fait. moo tax zéro tolérance la problème des sénégalais sénégalais. moo tax gis nga air jabar wala mu takk. non man man problème des sénégalais xaw ma ko ñoom tant que takkuñu ñaari jabar ñetti jabar égoïsme seen bopp la ñuy jaamu duñ mën duñ ko duñ ko mën ragal euh, euh, ci ci wàllu ragal yàlla mënuñu ko psychologiquement mënuñu ko financièrement mënuñu ko physiquement toppandoo rek ak égoïste gu metti effectivement wallahi la loolu moo fa nekk et et et qui paie les pots cassés ce sont les femmes xanaa les femmes waaw bu ñoo euh, jëlee kër gi def ko def euh, dugal ci ay jabar ba mu fees dell jur kër gi ba fees dell ndey ya ñooy génn di di taabal taabal lu ñu ñu dundee doon loolu yàlla moo ko seen bopp malheureusement loolu yàlla wax ko wallaahi ci loolu lañ nekk de waaw ah, te bu ñu waxee jabar bi ne yàlla may na ma yàlla may na ma droit ma takk waaye duñu wax yàlla may na ma droit ma yor waaw <laughs> malheureusement. Mm-hmm. effectivement mm-hmm. noonu la ñu noo noonu la ñuy waxee. noonu la tellement que yow souvent booy wax ci booy wax ci loolu. dañ lay dëkkaloo mm-hmm. foo foo foo foo dëkkul. man kay chaque jour jëlee féministe la. mon frère man ah, man dooguma la sax yàlla bu la yàlla des fois tu te sacrifies parce que day toll foo xamante ni da ngeen am benn objectif nga sacrifié wu. doo jënd yére doo jënd daal dàll doo defaru doo kii nekk ci rek parce que da ngeen am benn objectif mais day mujj ba loolu ñu la ciy reproché. Mm-hmm. man nekk topp naa période boo xamante ni ñu ngi en changé di tabax suñu kër sama doom yi sax dañ may ñaawal yaay naa xoola sa saagu changé bi bu ma ñëwee maag xoola maçon yi maa leen fii njëkk maa leen fii mujj dëkk ci appartement boo xamante ni dafa xat ba connexion sax boo si duggee doo ko kii mais xam nga lan bi mu takkee jabar je pouvais mm. plus te parler fi nga nekk sa connexion communication ma je voulais <laughs> plus te parler dama daan jógee mujj gi xool ay dimanche yoo xamante ni dama damay génn ci chantier damay jógee foofu ñëw ci chantier bi rek uniquement pour mën a wax ak moom pour am réseau bu normal mais bi mu takkee jabar loolu la ma ah, reproché on n'arrivait plus à communiquer on n'arrivait plus à communiquer sa kol sa ah, fulaar boobu benn fulaar boobu mu mel ni moom rek nga am waaw sa benn fulaar boobu mu mel ni moom rek nga am tout le temps moom nga doon koloo xam nga <laughs> yàlla li ma leen di wax nii yàlla xam na ni et loolu la joxe lool la joxe comme prétexte di xale yi jooy fii xale yi jooy fii doom day yàq sëy xam nga amatuñu woon intimité te ubbi safur la moo leen jur moo leen jur kay moo leen jur. doom day yàq sëy mais je te crois man tout le temps je le dis yi gis nga góoru sénégalais ñu ci bëri ak ñi ma ko sañ wax bëgguñu doom parce que lu tax nga xam ne bëgguñu doom imaginel góor ñu ci bëri bu ñu juree doom ba nga leen di nàmpal ca kaw laal ba lañ la naan xoolal damay génn néeg bi ah sa doom ji dafa bëri jooya ah. mais sa sa sa il mm-hmm. m'énerve commencé di la reprocher yow sa propre doom xale bi bu raamee toj dara ñu ne xët bépp xale bi bu jooyee ñu ne warul jooy ci nga xam ne kii bëggul doom ci et la majeure partie des hommes sénégalais dama parce que ñoom doom arrangé wu leen parce que malheureusement bëgguñu ko ci sëy seen bànneexu bakkan ak ñi ma ko sañ a parce que bu ñu boolee ñëpp rek. day ñëw day ñëw vacance day ñëw vacance ni dajaleel xale yi. malheureusement bu ñëwee vacance damay dajale xale yi yóbbu leen sama kër yaay. damay mujj <laughs> naan ko yow mais xale yi ni ma dañ la nga leen dañ lay namm ñoom tamit dañ lay namm. wala bu ñu demee vacance ci benn kër. disons à Saly dañuy am dañuy am kër goo xamante ni dafa am annexe. foofu la xale yi di nekk damay mujj di ko saraxu naan ko doo bàyyi xale yi ñu ñëw oh au moins ñu gis ñu toog ak ñoom benn instant. yow wallaahi yow narcissique bu narcissique bu sadique nga dajeel narcissique bu sadique parce que yaa ngi narcissique yoo <laughs> mais mais narcissique li ngay wax ni c'est dangereux non je confirme te dafa bëri malheureusement hmm? <laughs> Mhm. dafa bëri de malheureusement. da ngay def mhm. demande si ñaari nit yu. yàlla dugal la. non dafa am man j'ai des am na femme boo xam ne nee na ma man bientôt léegi ma am 40 ans te moom benn doom la ñu am te doom boobu yàlla def na taxawul te moom dafa ma boo boo amee dama fase ne ko léegi yow nga toog li gën a mooy fi mu nekk nii dafa jékki-jékki dégg ni waa ji na feneen ma ne ko waaye ba takk xale bu jigéen ba <laughs> man jigéen dama leen di mel parce que y a des choses yoo xam ne on l'accepte pas mais genre dañ naan gor xam dañ naan gor dina dund lépp waaye du wax lépp gor mhm. dina dund lépp waaye du wax lépp lay waxati ko moo le comble le comble mooy dama ko doon seetlu ne ko dama ëmb mais mais mhm. bi man jour boobu laa ko bàyyi man boobu si insti si si boobu laa ko la la la génn ci sama xol parce que bi ma ko ko waxee mm-hmm. trois jours ma bàyyi ko ci biir rek trois jours bi ma ko waxee dafa tëb ni ma mais c'est les putes qui font ça tu es une pute ma parce que ma ne ko un enfant derrière ton dos mu ne parce que doom doom dañ koy waxtaanee d'accord si yow lan mooy sa problème man j'ai déjà fait mon testament ma ne man ma mani nii di ko xool mu ne li nga war a am su ma deewee bind naa ko ba pare li nga war a am bind naa ko ba pare yow looy daw lan mooy sa agenda yow yow lan mooy sa agenda ma koy xool pendant trois jours ma bàyyi ko ci biir su ma duggee mu génn su ma génnee mu dugg di xoola bu ma tëddee ci kaw lal bi mu wàcc suuf mat trois jours rek ci cas xam ne dañ naan yàqal biir bi man am naa ci boo xam ne fii pare neen jëkk def ko ne carrément je ne reconnais pas cet enfant dangay yàq biir bi wala du ma ko reconnaître yaa na bi ma amee trois jours dama ko woo tàgg ma ne ko ma ne ko kaay kaay ma wax la mu ñëw ma ne ko dama la soxla mu ñëw ma ne ko gis nga mane ko dama la doon nax rek mais li ma gis <laughs> tiital na ma doyal naa li ma li ma jot a jàng ñetti fan ñu toog man man dama dama yaakaaroon ni jabar bu nee do jëkkëram bu ne dafa am dafa tollu fenn fi mbégte la war a doon mais doon lii ma gis durant trois jours ma ne ko yow ma ne ko li ma gis doy na ma doy na sëkk et pourtant yaa ngi takk jabar et pourtant bi ma la nee lan moo tax nga takk parce que dafa ñëw man ci bu TikTok day bloqué live bi leen ngeen arrêté jooy yi di def ay jooy yi parce que après TikTok na bloqué live bi mhm. tax nga takk lan moo la dugal si jabar mën wax way dama bëgg ay njaboot dama bëgg ay xaafis yu xuraan dama bëgg njaboot yu jàng alxuraan ma ne ko mais mais yow ma ne ko man bi ma la laajee lan waaw moom moo doon wax loolu ma ne ko yow bi ma la laajee lan moo tax ka jabar benn raison bi si njëkk danga ma ne woon da nga bëggoon da bëgg njaboot ay njaboot surtout yu jàng alxuraan ay xaafisul xuraan ma ne ko te man ñetti doom yi ma am ñaar ñëpp ay xaafis lañ kenn ki juróomi at la am dugagul sax daara ndax dama la jural lu ma yarul wala dama la jural loo xamante ni lu lu naka sudul noonu la parce que yow loolu nga ma ah, waxoon mais ki manipulateur la man en tout cas manipulateur l'emprise ma chérie. tu étais sous l'emprise quand tu l'emprise doo mën a <laughs> daal comme ni ñu koy waxee yaa ngi yaa ngi nekk ak moom ba tey. yaa ngi ànd ak ba tey. non non moom moom may na ma sama fase na ma fase na ma. subhanallah waaye santal yàlla. sant mm, yàlla sa yoo xam ne maa ngi leen di nuyu bu baax a baax dama bëggoon sànni tuuti kàddu rek ci kii bi naa ne ñu ngi leen di nuyu soxna si maa ngi kontaan sa si sa si yi ngay waxtaanee bu baax a baax mm-hmm, mm-hmm. sa sa waxtaan yi am na solo lool mm-hmm. ah, donc ma ne ma sa approche bi nga bi nga amee c'est une approche qui me qui me qui me fascine beaucoup parce que dafa nekk loo xam nit ñi tey dañ ko dañ ko soxla ñu bëri ñu ngi daw di wuti coaching développement personnel waaye xamuñ ne macha allah yàlla lépp mu ngi ko jox na ko si sallallahu alayhi wa nga li ñu li ñu war a. feebar mooy ko xam ne dañ ko takk waaye ñu bëri ñu ngi dox fii am ci ay sox dama dama dama je n'étais pas connecté sur le wifi moo taxoon quoi xam mm. na léegi ça va mm-hmm. voilà ma ne ma ne ma ne dafa am loo xamante ne lu doy waar la si dëkk bi mm-hmm. te dama gis na saan mm-hmm. jigéen ñu bari di ko souffrir te mu dem ba jural leen ay feebar yoo xamante ne nii saan ko ci xool mu ngi jógee ci mm-hmm. une dame boo xamante ni mu ngi mu ngi nekk ci relation boo xamante ni bu malsaine mu muñ mm-hmm. yàgg ci nekk ci ba mënatul muñ ba mu jural ko nag finalement des maladies yoo xamante ni auto-immunitaire le corps va mm-hmm. s'exprimer en fait loolu wax loolu laa leen di wax souvent feebar yi ci boo xoolee ay fibromyalgie voilà c'est des maladies am ne xamuñu ko woon avant xam nga amuñu ko woon ay ay ay poly polyarthrite am xamuñu ko woon et si tu vois ay syndrome sec syndrome de Gougeron yooyu yëpp boo ko xoolee subhanallah ay naqar la naqar mm-hmm. yoo xamante ni dafa dem ba le système voilà même bo ki nga xamante ni ba mm-hmm. bay may na la sa baat fexeel ba nga toppatoo sa bopp mm-hmm. parce que gis nga sa yaram dafa am nga nga nga fexe incha allah liggéey ci sa yaram bu baax a baax parce que loolu daf ci am solo parce que le corps dafa am mémoire xam nga Mm-hmm. surtout mm-hmm. ce froid dafa am na da koy mémoriser donc il faut nga liggéey ci bu baax a baax incha allah pour yàlla génne la lépp loo xam dafa def fa daj dafa dafa nekkoon ci naqar lépp loo xam dafa def ko emmagasiner parce que le corps est intelligent mais loolu yëpp nag li ci ëpp solo mooy gën a yëkkati sa iman billahi sa ngëm ak sa sant yàlla bi nga xamante ne yàlla mm-hmm. génne na la ci lu mel nii si tu vois donc sois plus dans la grâce nga yokk looy sant sa borom voilà surtout lokk yokk ci xam ne c'est am épreuve la bu la yàlla jaaral mhm. et si tu vois dund ko te itam épreuve bu nekk c'est fait mhm. pour que nga mën ko surmonter pour que mu yóbbu la ci yeneen daraja sallallahu alayhi wa sallam nee na jullit léppam léppam kii la léppam euh, euh, euh, c'est-à-dire bonus la léppam dara daraam léppam dafay gagné en fait ay xasanaat la cest dire que bu mhm. fekkee ne yàlla teg na la nattu nga muñ ko mu ngi lay mu ngi lay fanqal say bakkaar mu ngi lay yëkkati ci ay darajaat bu la mayee yiw nga sant ko mu ngi lay dolli donc ala kulli xaal jullit léppam yiw la waaw nee na al muminu kulluhu xayr donc jàppal ne lépp li yiw la rek xëy na mën na naqari ci surface bi mais li ci biir insha allahu taala mhm. yàlla nee na moom wal aqibatu lil muttaqina nee na lépp mhm. fin bi toujours ñi ngëm ñi am ngëm daf leen di fay si tu vois mhm. yabluwakum ayyukum ahsanu amalan la wax nee na bu ñu ku ci gën rafet tey jëf donc yow l'essentiel fexeel rek incha allah moom waa ji bu ko téyal dara sa parce que loolu daf ci am solo il faut nga nga nga jéggal ko baal ko c'est-à-dire que nga débarrassé wu ci bépp émotion bu la doon lii ci moom loolu daf lay daf lay épuisé en fait loolu solo la loolu loolu loolu poison lay doon ci yow quoi incha allah yaa ngi ay voilà mhm. exactement voilà donc nga yokk istighfar bëri looy def astaghfirullah yooyu daf lay fóot day mm. fóot sa xol da koy mm-hmm. da koy da koy setal nga bëri looy julli ci yonent bi mm-hmm. sallallahu alayhi wa sallam parce que yàlla wax na ko ci alquran inna mm-hmm. salataka sakanun lahum donc salaatu ala nabi dafay indi sakina day indi tranquillité day indi quiétude ci sa xol parce que ruux moom mooy nit dëgg te ruux tant que mu ngi dund tant que mu ngi am lekk bi mu soxla mooy zikr mooy dellu ci yàlla toujours dafay gën a amplifier sa fréquence vibratoire parce que xool bi tant que mu ngi am charge électromagnétique bi nga xamante ne buy tax ma nga xamante xool bi ubbeeku deret bi muy circuler loo ci dara ci cellules yëpp day nekk deret bu am nuur bu am leer loolu dafay leeral sa lépp sa kanam day leer nañ moo tax képp kuy bëri istixfaar ba ko xoolee day gis ne dafay nekk jàmm donc yàlla yàlla jàppale la incha allahu taala jërëjëf merci

déjà da koy def mhm. pour yow parce que mhm. loo tey ci sa rek mën na def ay mën na la indil ay ay loo xamante ni maanaam souhait wala souhaitu ba tey di mhm. loo am déception ci nit wala nit toon la aussi tamit nañ ko jël comme ci euh, yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nit ki boo boo gëmee yàlla di roy Mm-hmm. ne eh, eh, am am eh, ne ne ci lislaam nga nekk da ngay jéem a mm-hmm. tooñ nañ ko façon tooñ bu nekk waaye toujours da doon jéggalaat xam nga benn xadis nee na nee na sil man qataaka waafu an man zalamak lu am solo mm-hmm. jéggal ba jéggale bi nga wax noonu nee na waafu man zalamak jéggalal ki la tooñ liggéey la. Ah. liggéey mhm. la yombul nag. Mhm. yombul demee processus la. wallaahi la bu yombul dara. yombul mais nag mën a nekk la. yow boo ko boo ko boo ko jé boo ko jégalee yow yow ça te fait du bien même toi-même. Mhm. sama sœur dama bëggoon incha allahu benn bés ñu am benn live boo xamante ne spécifiquement pour inviter képp ku amee naqar sa xol. da nga ñëw ci mm-hmm. live bi bés boobu incha allahu dañuy def benn une séance une thérapie euh, boo xamante collective lay doon mm-hmm. incha allahu taala mu am ay ayatul quran yoo xamante ne incha allah dinañu ko jàng dans le but de purifier dans le but de éveiller xol yi dundaat ku nekk yëgaat sa bopp mm-hmm. yëgaat sa diggante ak sa borom incha allahu nuur tabbi sa xol bi ba nga xam ne sa xol day sedd guy nga xam ne yàlla rek a mën loolu incha allah waaw. incha allah amul benn problème buñ ko. après rek mën nañu déggoo ci privé bi comme ça ñu xool jour bu ñu. disponible waaw ndax mooy li ñuy def chaque jour mm-hmm. muy ci live yi muy ci privé yi chaque jour dañuy ñëw wax li leen naqari ñu orienté leen xamal leen ni naqar euh, léeg-léeg yàlla day utiliser jaamam pour yëkkati la pour jege loola boppam mm-hmm. ndax euh, mm-hmm. damay yàlla mën na utiliser sa jëkkër wala mu utiliser sa doom wala mu utiliser sa waajur def ko mu nekk sa mhm. pire cauchemar def ko mu nekk sa nattu bi gën a màgg waaye dama naan kooku amul benn capacité yàlla daf ko utiliser ndax utiliser bi ko yàlla mhm. utiliser pour mu atteindre la ndax naqar boobu ngay mhm. yëg lan moo waral nga yëg léeg-léeg yenn naqar yi la sa jege ñaale di def mooy amour bi démesuré bi nga am ci moom ndax léeg-léeg dama naan dañu war a cultiver aussi le champ le sens du détachement détaché wu ci lépp pour attaché wu ci yàlla te bu ñu seetloo bu baax épreuve yi dafay mel ni yàlla dafay dafa mel ni daf ñuy tourneloo ñuy tourner pour wàññeekuwaat ci moom ndax foofoo nekkoon commencement bi te ci moom la ñu war a delluwaat ndax damay wax ni bi ñu juddoo rek bu ñu xoolee détachement depuis mm-hmm. euh, awaru ruux nga xam ni suñu ruux yi bi ko yàlla jëlee ci euh, euh, fi nga xamante ni fa la ci ruux yi wàccee ñu ci suñu biiru yaay ñu jóge suñu biiru yaay génn suñu biiru yaay muy détachement ñu jóge foofu nàmp nàmp bi ñu fer mu nekk détachement ñu jóge ci fer boobu bés jot ñu dem école muy détachement ñu jóge ci loolu aussi sëyi walla ñu tukki muy détachement maanaam détachement yépp yi ñuy dund ak abandon yi ñuy dund ci àddina moo tax ne abandon ñépp koy dund te lépp lu ñu yàlla bëggal ci loolu mooy ñu xam ni lépp lu ñu fi téye bés dina jot ñu détaché wu ci loolu kon au lieu ñuy ngatafu ci nit ñi léeg-léeg dafa am amour boo xam ne soo demee ba développé ko ak sa borom dootoo mën a nit dootu la def lu la parce que dootoo am ci nit attente ndax di nga xam ni nit ki yaamu yàlla rek la te mënuloo jox lu la yàlla joxul kon lépp li ngay xaar ci moom day fekk yàlla pare pour jox la ko kon moom cause la kon nit bi nekk sa cause naqar mën na nekk aussi cause nga jege sa borom te damay wax ni léeg-léeg eh, yàlla teg la natt yoo xam ne soo gestoo xool da ngay remercier sax nit ki nga xam ni ci moom la yàlla jaarale natt bi ndax bu dul woon moom doo mën a jege sa borom bu woon moom doo mën a am imaan bi nga am tey léeg-léeg nattu wéetaay bi ngay wéet ba pare nattu yu mel ni sëy bu tas da wéet parce que tu te sens rejeté par tout le monde société bi dañuy teg à part nit ñi teg la à part yow tu te sens tellement seul que l'unique solution mooy nga accroché wu sa borom ndax moo fi sës te waxtaan bi ngay waxtaan ak yàlla ci moment boobu wax wàqirlu bi ngay wax wàqirlu ci moom sa douleur boobu ngay wax ak moom relation intime boobu yow sa jëm bopp mën nga procurer mën nga yëg ni bànneex gi ngay dund mosoo ko dund bi nga juddoo ba tey ndax foofu le vrai sens du tawhid dafay mhm. nekk parce que xam nga nag fii kenn nekkatu fi ku dul yàlla suñu borom moom rek moo fi nekk fi mu nekk nii ndax ñëpp rejeté nañ la nit ñaa lay critiquer nit ñaa lay jugé ci kan nga mën a confier wu ci yàlla rek nga mën a confier wu waaw c'est pour profiter soxna si <laughs> boo nee xasbunallaahu waxu waxu xasbunallaahu rek xasbunallaahu mm-hmm. mooy lan mooy mm-hmm. yàlla doy na ma wa ni'mal wakiilu quel meilleur garant te itam ñi nga xamante ne yàlla daf leen nattu pour ñu am ñenn ñu xam ñu nekk sabab pour ñu am ay naqar mm-hmm. nañu xam ne ñoom ñooñu ay professeur involontaire la ñu woon c'est-à-dire xam nga professeur volontaire ba ak professeur involontaire professeur moo ko xamante ne daf lay jàngal te yëgu ko nañu xool mu ngi lay jàngal ci euh, te meilleure leçon Moussa ak ak ak Xudaar voilà jàngal nañu lu bëri ci suratul kaf exactement nga xam ne <laughs> damay jàng histoire damay réer. waaw nga xool innaka lan tastatia ma'iya ma'iya sabra <laughs> voilà donc loolu donc en fait comme li nga wax ni lu am solo la parce que nit ñi. Mm-hmm. li li mu wax ne que wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatun kooku ay Qur'an la. fitnatun lu mu ci wax lu mu ci teg atasbirun pour ngeen li muñalante. jeex na. wallaahi dañu jël nañu jël nañu ñenn ñi ñu nekk ñett ñett nattu ci ñeneen ñi. ñu nekk fitna ci ñeneen ñi moo tax man yàlla dégg fi kenn bànneex. ay dugg ma bànneex man yàlla dégg fi kenn bànneex. wallaahi wallaahi ah parce que li mu wax nee na al yawma laa yanfa'u maalun wa laa banuun illaa man ataa Allaha bi qalbin saliim pour xol yi set rek la xam nga ko fii li ñu fi indi àddina bi pour xol yi pour dellu ci yàlla ak xol bu sell. illaa man ata allah bi qalbin salim tout le temps bi ñu fi ñëw ci daal mënoo ko am tant que nekkoo ñu lay nattu sa xol bi nga jaar ci bi euh, euh, waa mhm. mhm. dul yàlla dootoo soxla ci lu dul yàlla. xam euh, may ko tuuti waa mhm. imaan. Mm-hmm. iman mm-hmm. Uh, uh, naka la nit ki mën a def ba am iman ba yegg ci degré boobu wala mm-hmm. uh, maanaam bu dee da jàng alxuraan rek ngay am iman wala iman daal naka naka la ko naka la ko nit mën a amee waaw iman xam nga yanti bi salaa salaam dafa am xam ni bi saxaaba yi demee Uhud nga xam ni ñenn ñi ci naafeq yi dañu bañoon dem bi ñu bañee dem yàlla suñu borom ne leen même bu ñu tëddee seen kawlal yi foofu la leen dee di fekk ndax xam nga naa fekk ñamewul dee ndax ñu ngi kokkali saxaaba yi di wax ni saxaaba yi ak seen biir yu rëy yi ñu naan dañuy dem guerre di reetaan yàlla suñu borom di leen di xamal yonent bi sallallahu ne ko am na ci nit ñi ñoo xam ne gëm nañu yàlla waaye iman tàbbeegul seen xol kon loolu preuve la que nit ki mën na nekk jullit mais amul iman kon xam nga iman lu ñuy cultiver la lu ñuy liggéey la lu ñuy euh, sabablu la mooy nit mën nga gëm yàlla mhm. waaye imaan nag pour mu pour mu yeewu ci sa xol relation intime la booy cultiver sa diggante ak sa borom te relation intime boobu mënul am su fekkente ni tey amoo tawxiid te tawxiid mënul am su fekkent ni tey jàngoo li nga xam ne tey mooy yàlla suñu borom arkaanul imaan yi nga xamante ni mooy six piliers de la fois nga xam ne tey mooy gëm yàlla wéetal ko te doo ko bokkaale kennal ko dañ ci lépp loo xamante ni rek yàlla suñu borom dafay wax ni bokkaale la gëm kitaab yi gëm malaaka yi gëm yonent yi gëm destin bu baax ak bu bon euh, dafay nekk loo xamante ni tey euh, yaakaar naa moo day nekk loo xam ni daf lay dimbali boo comprendre gëm-gëm bu nekk nag rek boroom xam-xam yi bind nañ ci ay livres yu dul jeex bu ko defee yow soo demee ba mm-hmm. xam ni gëm-gëm bu nekk borom xam-xam yi bind nañ ci ay livre yu dul jeex tey le fait nga am parce que nit ki mënoo gëm yàlla te amoo ci xam-xam maanaam l'islam li yàlla suñu borom ne iqra euh, mooy balaa ngay mën a géeju ci l'islam balaa ngay mën a def quoi que ce soit moo jiitu tey nit ki balaa ngay taxawal julli war nga xam julli lan mooy farata yi lan mooy charte yi lan mooy sunna yi lan mooy li yàq sa mm. julli su yàqoo nag nga koy defaree kon loolu tey nit ki su ko xamee dina mën a julli parce que bu dul loolu dinga nga di nga julli te amoo ci xam-xam sa julli du baax kon loolu yëpp tey suñ ko boolee mhm. dinañ gis ni kon xam-xam moo jiitu ci dundu jullit bi ci lépp lu muy def kon yow ket bi ngay def pour jëm ci sa borom ngir xam tawxiit bi nga xam ne moom la yàlla soxla ci jaam te tawxiit boobu une fois nga cultiver ko daf lay may eh, nga am benn compréhension am benn relation booy am ak sa borom ndax tey euh, nit ki ki ngay ki ngay bëgg muy sa jabar muy sa doom la fekk que ngay dem di ko xam di waxtaan ak moom di euh, di di di cultiver sa relation ak moom di ko comprendre di xam li muy bëgg di ko moytu lay war a am relation bu intime su ko defee nag comme ni ko yonent bi sa sal waxee woon saxaaba bi saxaaba bi ne ko yent bi nan lay def ba yàlla bëgg ma mu ne ko soo bëggee yàlla bëgg la dangay moytu bàkkaar yi te jege Euh, tey farataal farata yi dëkk ci te aussi ngay multiplier li nga xam ne mooy sunan yi maanaam li nga xam ne mooy sunna yi julli euh, naafila yi nga di ko multiplier tooyal zikkër ci sa làmmiñ aussi ngay gëstu foo toll jege alxuraan kon loolu dafa nekk loo xam ni cheminement la spirituel boo xam ne dama naan nit ku nekk war nga am sa programme boo dressé ci ci ci journée bi nga xam ni muy fajar wala muy guddi wala muy ngoon am na page yoo xam ne war naa ko jàng waaye aussi ma am programme jàng sama diine gëstu xam sama diine ndax diine mooy loo xam ni soo ko jàppee mu jàpp la boo ko bàyyi mu bàyyi la parce que même su fekkente ni jàng nga alxuraan am na loo ci xam mais euh, sabab lu ci xam-xam mun na nekk fiq mën na nekk euh, xam-xamu tawxiid mun na nekk euh, xam-xamu usul mun na nekk donc xeetu xam-xam yooyu yëpp dangay xool bi lu ci gën a intéressé parce que tamit l'islam dafa riche te xam-xamu l'islam yi dafa riche te dafa dafa yaatu dafa vague léegi ku nekk nag ak domaine bi nga nekk yow yaay xool ci lan nga gën a nekk à ak lan nga gën a bëgg a xam mais lii farata moom mooy jullit bu nekk war na fer ijji te bu ñu waxee fer ijji mooy am xam tawxid xam li nga xam ne aussi tawxid li ko régir mooy li nga xam ne tey mooy euh, euh, gëm yàlla si turam yi si euh, melokaanam yi ci li nga xam ne aussi mooy capacité mi parce loolu day nit ñi dañ ci dugal ci bokkul nga am ci discernement soo paree aussi nga jàng fiq mooy naka ngay jaamoo sa borom parce que fiq tey moo lay permettre ngay xam am disipline ci sa rigueur ci sa jaamu yàlla soo juumee xam nooy rectifier bu ñuy takk sëy nga xam lan moo lan moo ma war ci sëy ci droit ci devoir sama doom yar bi ma koy yar lan la ma ci yàlla sant ak lu ma ci tere su may jàngi xam-xam aussi yan xam-xam la ma l'islam permettre yu ma permettre donc xam-xam dalay guider torche la bu lay liir bu lay niital foo mun a toll danga koy soxla xam-xamul islam après da ngay nekk ci xel bu dal parce que doo doo làmbatu doo làmbatu léegi nag processus boobu ngay def eh, yàlla suñu borom su yeewee imaan ci yow nan ngay mën a sentir ni yow mii am nga imaan mooy da ngay gis ni yow da nga am facilité jaamu yàlla tey soo toogee sax nga gis ni julli jot na te mën a goo julli doo nekk ci jàmm nga gis ni tamit bu foo toogee ñuy wax waxu yàlla. sa xol bi dafay day day naat dangay am yëg-yëg boo xam ni dangay commencé am benn sensibilité boo xam ni booy jooy doo ko yëg soo déggee ni lii yàlla tere na ko dangay yëg ragal boo xam ni yow doo ko sax jéem a essayer lépp li nga xam ni dangay gis ni lii yàlla la koo bañ doo doo ko mën a def parce que dangay am benn ragal ci def lii yàlla bañ bu ko defee dangay am facilité ci bàyyi bàkkaar yi sans pour autant nga def benn effort dangay am aussi yombal ci di def li nga xam ni aussi mooy farata yi ak sunna yi. kon ni ngay yëgee ni am nga imaan du dara lu sa relation ak sa borom day dem ba day gën a dëgër ba nga xam ni doo mën a sax bàyyi xel li nit ñi di wax wala li la nit ñi di xoolee parce que yow li ngay gis rek mooy na sama borom kontaan loolu moo lay gidee te lépp looy jëflanteeg nit yaa ngi xool est-ce que lii su ma ko defee yàlla du ma yedd kon sa digganteeg sa borom confiance boobu di fa am. certitude xam nga li tax certitude mooy mu leer maam ni man yàlla mu ngi may gis ba nga xam ne am na ci loo xam ne buñ ma nee lii xaraam na duma ci nekk di werante wala di débat ci saasi dama ciy dañ ci saasi ma am certitude su ma nekkee ci naqar ka ni yàlla suñu borom dina ma ci jële ndax yàlla suñu borom nag moo ne innamal yusru après les difficultés vient la facilité kon su ma nekkee difficulté leer na ma ni léegi facilité ñëw kon na sama xel daal kon bu ma fi nekk di stressé natt bi naa ko jël paquet ko ba mu jekk rek dégg ko sama borom di ñaan te su may gëstu damay gis natt bi dafay jóge kon dangay dem ba nga xam ne yow problème ak stress dootoo ko dund parce que yow boo amee problème xam nga ni problème bii yàlla moo ko programme ci man yàlla moo ko dogal ci man kon yàlla xam na ni mën naa ko muñ kon naa rafetal moo tax soo demee ba egg ci niveau boobu dangay nit ñi dañ yaakaar ne amoo problème fekk na yaa ëpp problème mais problème yi da nga ko dénk ki mhm. jara dénk muy yàlla moo tax doo ko mën a yenu doo ko dund te boo tëddee da ngay nelaw mën nga xëy sa sa poos amul dërëm mais yow am nga yàqin que ni balaa ngay tëddee yàlla dina la jox nga loo ñaan dangay xam ni bu gënee ci yow yàlla dala koy jox su la ko joxul mooy gënul ci yow yàlla daf lay aar ndax yàlla lépp lu la xañ mooy gënul ci yow ndax su gënoon ci yow mu jox la ko ndax yàlla moo la gën a xam te loolu dama koy misaal chaque jour nit ñi naan sama ñaan du nangu ma ne doom bi nga ne xale la su ñëwee di la ñaan chocolat chaque jour donc am na fooy toll doog ko may ndax dangay bañ ay bëñam yàqu est-ce que da ko xañ chocolat bi parce que da ko bañ da ko ko xañ parce que da nga xam ne baaxul ci santé mun na ko jox jabet mun na ko jox kari léegi lu tax ñun suñu ñaanee yàlla yàlla mayuñu ñu jàpp ni dañoo tooñ yàlla wala yàlla bëgguñu wala nang fekk na yàlla daf ñu préserver ndax mën na am loolu bu ñu ko joxee ñu sànku effectivement damay dégg sax ñaan nit ki booy ñaan da li nga xamante ni moo gën ci yow moo gën ci yow. Mhm. waaw. ndax eh, te gënul ci moom waaw ma macha allah macha allah ak tamit mm. euh, euh, euh, nit aussi tamit bu fekkee ndax da jeex ci yàlla mm-hmm. am na yoo xamante ni du du am ci yow maanaam da ngay ñàkk mm-hmm. ki yooyu yëpp dootul nekk ci mm-hmm. yàlla dafa am lu wax ci xadisul xudusi yàlla nee na su ma la mhm. bëggee képp ku bëgg yàlla dalay bëgg même nit ñi nga xam ni nekkuñu ci yoonu yàlla waaye yàlla mu ngi ci seen xol dañ lay bëgg te defaloo leen dara mooy nit ñi dañ lay dañ lay dañ lay maanaam suñ la gisee même bu dee nit ki ma ngay tërëf di naan sàngara waaye am na toq imaan kooku dalay bëgg dalay jublu mhm. nit ki mën na ñëw di la wax soxlaam te pourtant xamu la defaloo ko dara nit ki mën na la gis nga neex ko mhm. te defaloo ko dara yooyu yëpp ay signe la yu hmm. lay wan ni am nga cër ci yàlla ndax tey dangay am yërmande ci jaamu yàlla yi dootoo nekkati ci juger nit ñi di leen xas di leen di leen di sikk parce que yow xam nga ni yàlla moo la gidee ba nga egsi fii de yàlla rek la neex nga mel ni nga mel ndax bu neexoon yàlla doo mel ni nga mel bu neexoon yàlla nga hmm. nekk ci sa réer ga nga nekkoon démb comme ni ko yéen sa doon waxee saxaaba yi bu saxaaba yi daan yeddante seen biir da leen doon wax ne leen démb rek ay yéeféer ngeen woon te yàlla gide leen ba ngeen tuub kon bu leen sikkante seen morom seen seen morom. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. coach maa ngi lay ziar maa ngi rafetlu waxtaan bi vraiment di bëgg lool ci kàddu yi. vraiment kàddu yi rafet na ñun moom dama bokk ci fans yi man moom dama lay suivre quoi. di jàngee lu bëri bari si yow <laughs> vraiment. na yàlla sàmm yokk xam-xam bi. gën a dëgëral taxawaay bi. man moom benn question laa amoon mu nekk lu ma jaaxal maa ngi Sénégal mm. Dakar mais dama gis ne divorce yi dafa bëri bëri bëri bëri lool lool lool jigéen boo gis <laughs> ñu jotoon say sama koñ yëpp presque ñëpp si waat neen te da ngay gis pauvre bu takk jabar divorce. Richard takk jabar divorce. après jigéen ñi di dem di ñëw vraiment divorce yu bëri alors que ne suñu yaay yi suñu maam yi dañ doon marié lu yàgg a yàgg. ko ne léegi moom dafa bëri je ne sais pas cause bi nekkul côté matériel nekk côté finance mais qu'est-ce sa se passe quoi jaaxal na ma lool lool lool. vraiment tey la gën a bëri ñun lu ñu am suñu yaay yi amuñu ko woon. Uh-huh. xaw ma ndax xam lu ñu lu ñuy sëyee suñu yaay sëyuñu ko woon. waaw waaw am nañu machine à laver. Uh-huh. dugub. Uh-huh. am nañu ay jànq am nañu gaz am nañu courant am nañu micro-ondes am nañu four suñu yaay amuñu ko. kon du matériel. problème bi du matériel. problème problème bu la ak problème bu ragal yàlla. te yàlla suñ bopp ko ci alxuraan nee nit ñi bu ñu demee ba ragalatuñu yàlla yàlla nee mu jëmbat fitna ci seen xol yi ak seen dund yi. maanaam hmm. ku ragalul yàlla sa dund nekk kaawu xam nga li tubaab bi def kaawu sa dund dafay jaxasoo day lëj hmm. te loolu laal mu jaxasoo loolu laal mu yàqu nga mel ni ku ay gaaf doo sa dara du sotti. Hmm. boo moytuwul même bu dee da am xaalis du barkeel doo ci mën a faj dara danga naan maa ngi liggéey di am somme tant te mun ma ci dara. Mm-hmm. Ah, barke. Mm. dafa am benn borom xam-xam bu mës a wax ne moom su daan def bàkkaar koy sentiré mooy su waxee jabaram du ko déggal su waxee ay doomam duñ ko déggal façam sax du ko déggal mu xam ne kon def na bàkkaar. Mm-hmm. gis nga borom xam-xam yi niñ daan niñ daan gisee. seen digganteeg seen borom. Mm-hmm. parce que damay wax ni tey munoo nekk borom kër déggaloo yàlla nga bëgg sa jabar déggal la sa doom déggal la. te ku wéet nag xam sa bopp. kon daal solution bi mooy. te nit ki. Eh, mhm. suñu maam Ibrahim bu ñu xoolee bi muy bi muy bi muy euh, bi muy euh, hijra di dem Màkka jóge Égypte ànd ak soxnaam sani bi mu demee ba sànni ko ci digg désertu Màkka lim ko njëkk laaj mooy ndax sa borom moo la digal lii mu ne ko waaw suma borom moo ma ko digal mu ne ko kon baax na. kon foofu lu ñu fay gisee suñu Ibrahim dafa déggal yàlla sans poser question soxnaam déggal boroom këram sans poser question keroog bi mu ne Ismaïl dama lay rey Ismaïl daf ko ne defal li la yàlla sant sans poser question. processus bi nii rek la amul amul miracle. bu boroom kër déggalee yàlla. takk soxna su ragal yàlla soxnaam déggal ko doomam déggal ko amul amul miracle kon dañu war a rectifier waat suñu digganteeg suñu borom. dañu war a sincéraat ci suñu jaamu yàlla dañu war a aussi def li jullit def muy samih naa wa atax naa mooy dégg naa j'ai entendu et j'obéis dégg naa te hmm. damay topp hmm. mooy loolu tey suñu demee ba comprendre que ni problème u crise générationnelle bi ñu am crise spirituelle la ak crise comportementale hmm. ndax jullit bu ragalul yàlla mënul am jikko ju rafet mënul am jikko ju baax surtout ndax tey lu tax ma indi développement personnel régir ko ci psycho spirituel mooy tey bu ñu defalee bu ñu defalee suñu psychologie spirituellement parlant suñu gëm-gëm ci l'islam bu ñu ko defaree forger ko forme ko defar suñu relation ak suñu borom bu ñu mhm. suñu relation suñu borom baaxee suñu relation ak suñu bopp day baax te suñu relation ak suñu bopp baaxee suñu relation ak nit ñi day baax te suñu relation mhm. ak nit ñi su baaxee mooy sama relation sama jabar sama jëkkër sama doom sama yaay day baax société bi baax. parce que jëflante bi may jëflanteeg nit ki yàlla laa ciy xool pas moom nu mu mel. te kon mm-hmm. société bi kon day baax. Mm-hmm. ndax su ma jotee ak yow xool yow ni may def may defante mais damay xool li may jëflanteeg yow lan la ma ci yàlla sant. ban acte mm-hmm. la ma yàlla sant ma doxalee ko. te kenn gënul. yell ci ñu roy comme mu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni mu doon jëflanteeg saxaaba yi ak ay soxnaam ak ay ak ak ñi nga xamante ni moo leen yilifoon ci tolérance ci compréhension ci acceptation mais bu ñu bëggee lépp dañ koy faj ci mer dañ koy faj ci defante dañ koy faj ci forcing ak jaay doole mais du ñu am dara parce que yàlla jaayuñu doole forcé wuñu te chaque jour mu may ñu nouvelle chance heure bu ñu yeewoo nouvelle chance la pour ñun pour ñu dellu bu ñu defoon bàkkaar yàlla daf ñuy day xaar malaaka bi war a bind bàkkaar bi day xaar ngir ñu tuub daf ñuy may chance ngir ñu tuub mm-hmm. ngir ñu rëccu kon chance yooyu yëpp ñu war ko saisir mais heure bu ñu yeewee dañuy répété bon gi di ko gën a répété muy gën a affirmé wu. Mm-hmm. kon daal solution bi daal mooy gëm yàlla rek pour mu mën a réglé wu. jigéen ñi dellu ci yàlla mm-hmm. góor ñi dellu ci yàlla ñu xam ne sëy jaamu yàlla la te yàlla moo ko digle mm-hmm. te lépp lu ñuy def ñu teg ko ci yoonu siraatul mustaqim mm-hmm. boobaa rek sëy yi barkeel waaw ah. ah. que tey bu fekkente nit ki da ne da sëy jaamu yàlla ndax yàlla moo ko digle kon bu dee jigéen nga bu yàlla suñu borom diglee ni sa jëkkër sa kilifa la problème warul am ah, waaw mais parce que yow sa jëkkër ragaloo ko mais yàlla nga ragal te ragal mhm. bi lenn bi man moom lu ma gën a seetlu Sénégal mooy aada bi leen gën a topp moom aada la ñuy gën a dund que que diine bi moo tax nag euh, problème yi gën a lu ma seelu mooy euh, xam suñu yaay suñu maam yi daawuñu woon divorcé parce que amuñu woon euh, solution yu bëri maintenant léegi jigéen ñi dañoo yeewu yu si bëri duñ ko ah, nangu dañuy bañ moo tax nag ko ko cause yi bëri ñoom suñu amee lu leen métti rek ak ñaan leen baat dem seen maam yi ak suñu yaay yi euh, dama naan chance bi ñu amoon mooy amuñu woon réseaux sociaux mm-hmm. ba pare góor ñi rek a jàngoon jigéen ñi jànguñu mm-hmm. luñ leen indil ci diine ji ñu jël même bu dee du noonu dañ koy jël mm-hmm. ba pare régiroon nañu société bi noo xamante ni tey jigéen amul woon beneen objectif ci àddina bu dul mariage parce que amul woon carrière amul woon jàng amul woon mhm. leneen mariage moo nekkoon carrière bi mhm. ah léegi nag tey su demee ba nga xamante ni àddina dafa ubbeeku mooy dangay toog fii gis lay xew fële Amérique mu neex la lool nga bëgg koo dund benn mhm. nga mën a toog fii nga gis ni yow am nga euh, am nga euh, possibilité jàng am sa propre xaalis te xaalis nekk doole nekk puissance nekk bànneex nekk luy attiré kon dama naan euh, il faut que ñu adapté wu ci suñu génération. parce que tant que ñu ngi mhm. xool ci ginnaaw du ñu avancé. mooy société bi dafa mhm. changé te dafa mel ni góor ñi accepté wuñu aha accepté wuñu société bi moo accepté wul évolution bi jigéen évoluer mhm. te pourtant société yi ñuy raw yëpp foofu la ñu rawee tey boo demee Moyen-Orient demal Dubaï wala Màkka gii dem fa nga xool jigéen ñi bu njëkk daanuñu dawal léegi dañuy dawal bu njëkk ñu jàng léegi dañuy jàng bu njëkk ñu tukki léegi dañuy tukki bu njëkk daanuñu tas léegi dañuy tas mm-hmm. donc problème yooyu ñoom évolution boobu léegi dañ ko nangu ba nga xam ne xam ñu jigéen fii tool nii kenn mënatu ko tënk tëj ko comme niñ ko defee woon à ko mm-hmm. te amul benn aay wala xabis nag buy wax le contraire ndax bu amoon jigéen ñëpp toog waaw ndax bi yàlla suñu borom joxee jigéen droit amul liggéey rek ci la góor ñi waroon am intelligence xam ne bés dana jot jigéen dina dem liggéey te dina am xaalisam. Mm-hmm. parce que so loolu su ma woon nekk mooy droit bi dafa woon nekk kon yàlla danaan liggéey jigéen dafa xaraam. ay. Mm-hmm. Mm-hmm. malheureusement société actuellement loolu nga évolution bi am settewul te ñu ñu bëri aussi tamit. c'est ça bu ñuy dund ci sëy maanaam duñ euh, maanaam ragal yàlla ak li ci yàlla wa duñ duñ appliqué loolu maanaam. Euh, malheureusement. Euh, suñu suñu suñu suñu aada la ñuy appliqué xam nga maa ngi maa ngi lay bindal sax loolu jàngumaar alxuraan ja ma mais. Mhm. xam naa ni loolu loolu ay naxekaay la naan. àjjana jigéen mi ngi ci waaw mi ngi ci waaw mi ci diggante mhm. ñaari tànk ci jëkkëram loolu xam nga mhm. ay naxee war naa existé yàlla góor ak jigéen ñaari sexe lañu yu yu différent mais li war góor moo war jigéen ci jaamu yàlla. jigéen tey bu toppee jëkkëram ba dee te du julli du wóor bu deewee yàlla mbugal ko kon bu nekkoon ci tànk ñaari jëkkëram kon que c'est-à-dire jigéen même bu jullul wooru na topp jëkkëram rek dafa war a dem na effectivement parce que ñu bëri nag. ñoom lañ gëm jigéen ñu bëri parce que loolu lañ wax ah, loolu lañ leen wax te loolu yàlla wax ko loolu problème la yàlla wax la waaw te et tamit comme ni ni ni nga koy waxee sànq mhm. diine day ànd ak jamono day dox diine moom diine la rek du changé men mais nag bu jamono ñëwee dafa am neen jamono mooy adapté wu voilà parce que yàlla prévoir woon na lii li tax yàlla prévoir woon na ko mooy yàlla prévoir na ni jigéen dina liggéey moo tax yàlla suñu boroom euh, deful benn croix wala barrière ci liggéey jigéen lu dul jigéen buy liggéey yi na respecter conditions vestimentaires yi na muuru na sàngay awra pour bañ a nekk fitna ci mbedd mi te code vestimentaire yooyu tey le fait que jigéen ñi respecté wuñ ko tey moo waral tey malheureusement jigéen day génn di liggéeyi nobante ci bureau ba euh, yow nga bàyyi sa jabar sa kër ñëw nobante collègue bi parce que fitna bi nekk ci biir entreprise bi suñu respecté woon code vestimentaire bi respecté aussi li yàlla santaane góor jigéen war nañu mën a liggéey te fitna warul am. mën mën naa ñàkk woy. mën na ñàkk. mais fitna bi am tey aussi ci sëy yi bokk na ci sëy yi seen fitna tey lan la xaalis. infidélité. Mm-hmm. ak jeu de rôle pouvoir. Mm-hmm. am nga droit lii amoo droit lii yaa war a def lii maa war a def lii maay sa kilifa doo sama kilifa bu jeu de pouvoir infidélité argent mooy problème conflit yi ñëw mm-hmm. tout le temps tout le temps samay séance coaching. en tout cas. Euh, mais nag benn problème am na lépp am na avantage am na inconvénient. jigéen ñi suñ demee liggéey tamit problème bi mooy xale yi xale yi ku la ñuy garder ku la ñuy jox benn yenn éducation aussi am na avantage am na inconvénient ñaari côté yëpp xam ci société dafa uh-huh. mooy tey moom laa doon ma waxee li nekk ci xolam mooy benn jigéen buggul am doom di ko bàyyi ci kër di ko bàyyi ci këram di liggéey benn jigéen bugg jigéen bu nekk boo uh-huh. sañoon sa doom boo ko bay doom dafa sax ci xol. doom xëtër la doom xol la. amul jigéen bu bëgg jël say doom ñu nekk ba âge trois ans un an deux ans nga di ko bàyyi ay mindaan ay crèche di dem liggéey mais c'est malgré nous mhm. parce que léeg-léeg da ngay gis loo xam ni man dama lay jox sama exemple personnel laa jox man bi may dugg ci sëy j'avais 17 ma sëy mhm. di jàng bi may jàng ba am sama ñetteelu doom je me suis dit naa toog garder samay doom mhm. parce que en ce dafa metti psychologiquement dafa metti physiquement nga bëgg a poursuivre say études bëgg di liggéey bëgg di sëy ci sëy bi dafa metti mm-hmm. mais gis nga trois ans yooyu ma toog ci kër gi waa ji wan na ma loo xam ne tey tax na ma jógaat dem liggéeyi parce que su ma soxlaa 5 ko am su ma soxlaa 1 euro du ko am su ma feebaree pour mu jël sama ordonnance problème sama ordonnance ay doom problème la ma jógaat mm-hmm. taxaat samay daal ba mu jekk delluwaat ci liggéey ba pourtant amoon naa yéene ak yàqin toog sama kër yar samay parce que je me suis samay doom naa toog surveiller leen yar leen ndax man la ñu soxla ci âge bi te c'était malgré moi dama doon wax ne man bugguma bàyyi samay doom ci loxo étranger di liggéey li ma bëgg mooy yar samay doom ba ñu dëgër su may liggéey ma liggéey mais bëgg naa de zéro jusqu'à dix ans wala de zéro jusqu'à sept maximum samay doom ma nekk ñoom H24 mm-hmm, mm-hmm. mais c'était difficile parce que góor bi nga nekkal du la ci soutenir parce que dalay say besoin doom say besoin personnel day toog carrément yéen jël xaalisam yónnee ko mbokkam Sénégal yow nga nekk priorité am mu ne la carrément duma la defal dara wala ngay doo dàqante moom ngeen di xuloo chaque jour ci loo xam ne jaru ko kon gis des fois dama naan des fois góor dafay pousser jigéen ci yenn décision yi te du yoon li moom bokk ci mhm. famille bi quoi te loolu malheureusement du c'est des c'est des ay ay fait la pour Sénégal. c'est des mais c'est a vécues maanaam c'est des choses qu'on man mii je l'ai vécu jabar doom nga am tu n'as pas ton te yow soo génnoon accident man maa lay assisté ci hôpital maa lay yor. effectivement yow yow. tey jii man maa lay maa lay assisté. boo yoree soxna boo yoree soxna tey sa soxna moo la gën a jege sa yaay. di mhm. la jur. kooku nag bul wax ne jabar dongul. fuuf. te kooku moo war a moo la jural ay man maa lay assisté maa ci def sama xaalis. <laughs> effectivement effectivement. ak sama doole tey jii nii loolu loolu daal doon waxtaan ak gars yi ci panel mais bëgguñu koo dégg. Mhm. bëgguñu koo dégg. parce qu'ils n'ont rien compris. parce que mooy mooy degré bi degré de bassesse psychologique bi jig bi góor ñi ñenn ci góor ñu toll. mooy hmm. yaay amul remplaçant kenn du ko géegante ak jabar mais jabar dafa am hmm. place te dañ ko ko war a jox bu mu doy. man man bu mu. loolu lu ma gis ak maanaam jigéen jigéen bu décidé. jigéen bu décidé maanaam toog si kër. am da nga war a tegal sa jëkkër ay conditions ne ko ah man de danaa toog mais fin du mois lii ak lii ak lii nga may jox naa toog sacrifier sama carrière sacrifier sama lépp fin du bi jotee joxuloo ko ah vraiment nag nga nga defar say dëbës commencé waajal. gor la ñu tegal contrat. ah xam nga balaa nga si uh-huh. mariage balaa nga si dugg dafa. mariage balaa nga si dugg dafa. gis nga. dafa may contrat effectivement. Hmm. ay ay charte ay charte ay principe. mais ñu bëri duñ ko respecté. suñ ko respecté wu nga buub say bagage ah. léegi nag léeg-léeg buub say bagage boobu dafa metti xam nga tey benn jigéen buggul jaboot ak góor di man dama divorce dafa nekk loo xam ni euh, foog nga nekk jigéen pour comprendre enjeu wu divorce. Hmm. day mel ni nit ki dañu sa yàpp yaram ne la bàyyi ko foofu nga dem sa yoon. Ah, c'est douloureux. Hmm. kenn bugg ko parce que dama naan. divorce su jigéen soo ko nar def na teel mooy balaa ngay jur doom mbaa bu maximum benn mais soo xasee ba am ñaar ñett mais c'est douloureux nit ki da koy def mais du ko surpassé bëri na jigéen yoo xam divorce nañ 10 ans mënuñu surmonter mënuñu fàtte mënuñu dem avant. parce que dafa hmm. douloureux dafa seen passé daf leen di pourchasser. même bu ñu duggee ci beneen sëy du ñu mën a du ñu mën a épanouir du ñu mën a am jàmm parce que dafa am lu ñu yenu ci seen ay épaules lu nekk si ginnaaw. daf hmm. ay traumatisme la divorce yoo xam ne parce que des fois euh, comme soxna si fi ci léegi lu mu ne tali. nga sacrifier sa carrière nit ki nga ne eh, man je connais plein de femme yoo xam ne fii lañ nekkoon à l'étranger góor takk la ne ne la demal toog Sénégal nga yarama samay doom samay doom bëgguma ñu yaru à l'étranger say waajur financé ci yow xaalis daggal la bii nga dem jàngi à l'étranger nga bàyyi lépp dem topp góor boobu góor boobu xam nga après humiliation bi ngay dund mooy lan mooy xoolal say waajur sacrifice bi ñu def ci yow pour préserver la et yow avec le temps nga gis góor boobu lum la liggéey mais yow après dangay am kersa sax avec ta propre personne parce que tu dis que mais je suis mais kii lim. <laughs> mérito naa ko. Mhm. et ça c'est c'est c'est douloureux. non c'est douloureux malheureusement man dama ne man bi ma demee ba nga xamante ni man bi ma nekkee ci sëy. Eh, j'ai décidé ma ni naa topp naa toog yar samay doom. Mhm. ma teg waa ji wax ak moom et tout mu ne ma amul problème chaque weer dinaa defal nangam nangam. ñu dem ba mhm. egg foofu mu def ko un mois deux mois commencé di ma dóor daa xeloo ma xuloo ci werante ci ba sonn ma ne xam nga lan la wax ju bëri wax ji dafay bëri xuloo beeg xeex bi chaque jour pour jox ma wax dëgg yàlla du ma ko mën naa delluwaat liggéey parce que après su ma demee sax ba gis femme yi divorcé fii ba di leen gis gis ni ñuy mujj ma gis man samay sëy ni muy kalaj kalajee mu leer ma ne ku moytuwul ne ñoom laay mel ma ne naa jëlaat sama liggéey téye ko bu dëggal moo tax ngay gis jigéen ne la sama liggéey bii boo sëyee mhm. problème bi ngay njëkk ah. mooy problème looy lekk lu tax hmm. jigéen ñu bay nekk ci dëkk bi di mbaraan di jaay seen bopp relation bu nekk ñu dugg ci parce la majeure partie dañu amay njaboot gu sewtu du ñu am lu ñu dundale te malheureusement bàyyi ju jur doom yi moo lay bàyyi abandonné la ak say dem ci ay góor comme moom pour ñu di la jox looy dundale say doom te moom muy hmm. teg ci loolu bëtam ah, problème bi dafa profond dafa métti jaamu yàlla la bokk dafa hmm. bëri liggéey jaamu yàlla jigéen ñu bëri ñu ngi di wax mbaraan waaw amul góor ak jigéen ñëpp a war a liggéey góor ak jigéen surtout nag dans dans des sociétés comme comme la euh, euh, comme société yi ñuy dund nii en Europe c'est ça parce que on se sent utile dans société mooy am mm-hmm. utilité ci société bi dund parce que nit ki waxuma dara psychologiquement dafay jox nit estime de soi dafay jox nit confiance en soi dafay jox nit mu yëg ni mu ngi jaamu yàlla ci li muy def mm. parce que psychologiquement sooy liggéey nga nekk nit ngay apporter quelque chose à la société même bu dee da defar bale di ko jaay yaa ngi defar bale di jox nit ñuy bale seen kër mm-hmm. da ngay garder sa dignité sax c'est ça mm-hmm. da ngay am dignité te man damay wax ni liggéey waratul nekk problème ci vingt troisième vingt unième siècle bi ñu toll deux mille vingt Mm-hmm. li war a nekk problème mooy naka la ñuy organiser famille bi ba nga xamante ni ku nekk di nga mën a jàppale sa morom ñu jàppalante pour société pour famille bi dem kanam. Mm-hmm. aussi question de jalousie bi question de parce que des fois ngay gis jigéen saan di liggéey mais waa ji bëgg a jël kër gi rek bàyyi la moom. te bàyyi la kër gi du la dama lay bàyyi kër gi de heure bu xëyee wàññi day wàññi. wàññi wàññi wàññi wàññi ba nga jékki-jékki gis ni yow à la fin c'est parce que moom wàññi lépp te loolu problème la parce que malheureusement am na ci la majeure partie jigéen ñi munoo xëy say doom war a lekk war a naan war a yóbbu goûter war a def lu bëri. ngay mhm. toog di xaar koo xam ne na joxu la wala dala daan xaar moo ñëw wala aw ko. Mhm. te yaa ngi ko yor danga naan comme yor naa ko naa ko ci def. waaw. Ah, ah, yor doomu aadama. yow moo tax am na ci yenn société yoo moo tax am na ci yenn société yo xam ne comme par exemple euh, réew yu mel ni comme par exemple euh, Angleterre ñoom foofu mm-hmm. vraiment ils sont vraiment organisés parce que am na foo xamante ni euh, bu couple bu bu couple yu ay doom yu ndaw ak yooyu pour ñaar ñi ñaar ñi di liggéey day xaw a jafe mm-hmm. moo tax en Angleterre ñoom vraiment côté boobu ils son plus organisés que nos voisins européens Italie euh, mhm. France Espagne parce que ñoom ils sont tellement mhm. organisés que yow euh, bu fekkee ndax couple bi kenn ngi kenn ngi toog ci fépp ñoom mhm. la dañ leen di dimbale dimbal boo xamante ni maanaam ci doom yi dañ leen di am na fi de góor ñëw ba xëccoog yow am na fi de fii boo fi amee ñetti doom di am allocation 1000 euros waaye góor bi moo ko naan ci yëf toog ci <laughs> dañ la ciy fase sax <laughs> ma ne ko si masa yéen ñu nekk Europe. non mais fii man pour te ah, man pour te gis naa fi ñoo xam ni fii sëy nañ fi 20 ans mosuñu laal allocation familiale. ndax góor bee koy déclaré moo koy percevoir sooy ŋaang mu lay indi problème yi àddina man gis naa femme boo xam ne gis nga dafa xare xare xare ba nangu allocation familiale waa ji tey loxoom fayatul location fayatul ndox fayatul courant ni ko 1000 euros yooyu nga récupéré fay ci lépp teew nga am sa salaire ba pare dolli ci xaalisu xale yi sa sa jabar toog ci kër gi mu ngi am ñeenti doom liggéeyul gorul yettul amul dërëm ngay dajale allocation boobu di ko di ci dund di ci yaataa yumbe ba pare teg ci nga ni yow doo jàppale sa jabar ci dara yow même bu dee sax mënoo ko jox 1000 euros mais jox ko 500 euros. Mm-hmm. amoo yoon mais mais tamit jarul yoon sax moom mu téye xaalis boobu. man euh, gis naa fi euh, ñu fase gis naa fi ñoo xam ne dañ leen a fase bëccëg dara kaam ndax loolu ndax allocation. am na fi ku fi rey daaw jabaram France jàpp fi jabaram paaka ndax allocation allocation <laughs> yaa ngi bi de. kon de bëri na. allocation yaa ngi bi. nga parce que yow war la koo def xool parce que bu ñu fekkee ndax yow yow te xam nga ne mhm. kër. jigéen a ko yor kër jigéen a ko mais malheureusement. kër jigéen na ko yor mais nag sama yoon du nekk. sama yoon du nekk ci loolu te te la ma la war a géew ak samay doom man danaa ko def. Mm-hmm. gis nga fii subvention yu bëri am na am na yoo xamante ni dana la jàppale nga fay sa euh, sa sa location am na subvention yu lay yi ñu lay defal. am na aussi ay bonus yoo xam ne pour école yi bu jotee pour nga jënd fourniture euh, bonus yoo xam ne pour ouverture école la. am na aussi ay bonus yoo xam ne pour transport yi la donc bëri na ndimbal mais mhm. problème bi mooy ndimbal yooyu yëpp bu ñëwee yëpp da pour dimbali waa ji la mais du tee waa ji da ciy toog <laughs> du yoon nag loolu moo fi xew de moom la ma ne si du yoon nag du yoon nag mais société bi de si yàggee man euh, xaalis dafa yóbbu seen fit xaalis moo yóbbu fi góor yi man defar may dama naan góor ñi lan mooy mooy mooy mooy mooy takk jépp takk jabar bara baraan pour jabar takk xam nga man dama ne bu doon sax da dem tabax ci Sénégal après ndaw si bu demee ba bëgg a ñibbi moom njabootam ñibbi parce que fii jigéen ñu bëri dañuy bëgg bu ñu demee ba toll benn âge bi ñibbi euh, mais da ngay gis ni bu ngeen tabaxee kër bokk tabax ba pare ba nga jàpp ne yow da ngay ñibbi tranquille mu takk xale bu ndaw dugal ko ci biir kër ga muy yaataayu malheureusement <laughs> ah. waaw